نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك خيوال دكتي نجوكي تي ألاج مودو سيسي نجوكي وحمارا سيسي ملين أندلون كرافيل خمسون قاف إجاب الرسول سمسول بلاد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

واحلل عقدة من لساني يفقه القول الحمد لله ñaanu nan yàlla toog ak yéen jotaay seen émission wadduha borom bi maynu nu toog ak yéen tey di àllarba di 16 mars 2016 noonu la nu koy ñaanee commencé si bismillahi rahmaani rahim yàlla kàttanal nu ban jeex ak alhamdulillah di yàlla dimbali nu mu jaar comme fa émission Wadduha daan jaar te mooy jotaayu daara boo xam ne saa yu nu fi toogee dañuy wettili konteeg jaamu yàlla ñi nu yàlla booleel lépp loo xam ne dina leen mën a jariñ ci seen dund fii ci àddina waaye tamit dina leen yokkal xéewal sa barsàq émission wadduha dimas bi ki mercredi bi jàll nu ngi fi dalaloon imam mohammed Nyang di koy sant bu baax si laaxe biir ya nga xam ba nga xamee ne laaxe biire woon na ko mbokk yi waaye tamit la nga xam ne jot na ko fi wàcce si xam-xam te muy loo xam ne képp ku sa jàpp man nga si jariñu nuy dellu di sant bu baax imaam Mohamed Niang ka xaadati nanu adawoo di koy def rek dañuy ñaan fépp foo xam ne kàddu àgg na fa nu yónnee xaddiya jullit yàlla ya nga xam ne na nga bar sàq di ñaan yàlla yokk sa ñoom yërmande yàlla yokk leen a jéggal yàlla it leeral seen gannaaw kon nu ñaan képp fépp foo xam ne kàddu àgg na fa nu jàng faatiha ak xul huwallaahu ahad lu sa jàppandi gannaaw ba nu ko xaddiyaale sallallahu alayhi wa sallam nu xaddiyal ko bépp neewu jullit boo xam ne ma nga barsàq noonu it la ni siyaara kilifa dina yëpp di leen ñaanal di ñaan yàlla yokk wéral seeni cër waaye tamit yàlla yokk guddal seen fan lool lool lool lool fa tabarakalaa nu yàgg lool di leen di topp tey dégg seeni ndigal waaye ñi nga xam ne ñoom la yàlla def nu jiite réew mi nu leen ñaanal yàlla lanu yéene ci réew mii di senegaal fa ko yéenee àggale ci ay xéewal yàlla kàttanal leen ba man fa ba sunu réew mii di senegaal àgg fa ci ndimbalu yàlla di nuyu di siyaara imaam yi asatis yi fépp foo xam ne jullitu yàlla ma nga fa tey jotal ni ko sallallahu alayhi wa sallam waxoon balliqu ni walaw bi aaya kon fépp foo xam ne jullite nga fa tey jotal mission sallallahu alayhi wa ñu ngi lay nuyu di lay siyaara di lay yónnee ñaan tey sàkku si yow ñaan di siyaara bu baax tamit fa tabarakallah yaay yeeg papa yi nijaay yi mag yi ñoom ñëpp nu ngi leen di jox cër bu baax di leen siyaara di leen ñaanal waaye di ñaanal ña nga xam ne ñoom la yàlla dogal nu féete leen kilifteef ni kiy rakk ni kiy doom ni kiy jarbaat ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal ku si nekk fa nga toll lépp loo yéene te muy lu ànd ak ngërëmu yàlla yàlla kàttanal la ba nga mën koy matal way tawat yëpp it yàlla mi nga xam ne mooy allahu saafi nu ñaan yàlla yónnee leen sifa yàlla woyefal yaram yi fa tabarakalaa ñi nga xam ne nattu dale na dab ba nu nekk si pression yi di ñaan yàlla ña fa njuum te yóbbu fa tabarakalaa yàlla fóot seen xel ba bu nu amee ixlaas du nu daje teg loolu ñanu tooñ yóbbu fayit fa tabarakalaa yàlla àtte dëgg ba nu moom seen bopp waaye Sénégal yi nga xam ne ni ngi bitim réew te fay daane seen doole di ñaan yàlla comme nanu aadawoo di koy waxee yàlla sàmm leen kër yàlla sàmm leen àll di siyaare bu baax kër gi di rajo municipal de Dakar RMD di si jiital kilifa gi Doudou Coulibaly nu ngi lay nuyu di lay siyaare di lay ñaanal di lay ñaanal fa tabaarakallaa eh, di ñaanal kër gi it fa la waaye di ñaanal alxaaji Alioune Jonn mi nga xam ne àllarba bu nekk si mbaaxu yàlla moom la ni jàkkaarlool te mu nekk si technique bi fa tabaarakallaa di koy sant bu baax it si itte bi mu am si émission Wadduha su empêchement amee mu war a rediffuser wala heure rediffusion bu yooyu yëpp fa tabaarakallaa ñu ngi koy sant bu baax si itte bi mu si am di siyaar bu baax sunu magu daara Eh, di Cheikh Ahmed Tidiane di koham xamne ne man mako ko man mako ko bëgg Cheikh Ahmed Tidiane Niang di koy nuy di koy siara di koy waccu wayam xel di damit si sama soppe di Kalidou gay fa tabarakallah di koy siara di ko ñaanal lu bari di wadu ha gep njabot wadu ha xel bu nu ko waxe rek dañ si jital sunu buntu di Cheikh Ahmed Tidiane gadjaga fa tabarakalaa suñ jaaree si moom dañuy siyaara sunu mag di sunu royukaay di alxaaji xaadim rasul Guèye fa tabarakalaa di siyaare bu baax tamit sunu jigéen de Adja Aram Ndiaye bu Tëngéej waaye di siyaare bu baax sunuy waajur yi nekk point 1 di alxaaji Alfuseyni Sagna wala ak soxna Adja Fatou Ndiaye waaye di siyaare bu baax sunu wëlër yi nu nekkal mbuur di fa ma dem ñaa di soxna Kumba Ka fa nu ngi koy siyaare bu baax di koy ñaanal di ñaan yàlla barkel njabootam te yàlla may ko barke Duha di siyaare fépp foo xam ne soppe wóllëre xarit képp koo xam ne yaa ngi wettali ko émission Wadduha fu si waay nekk rek nu ngi teg nu ngi lay nuyu di lay siyaara fa tabaarakala di leen yónnee ñaan te di leen wax ne bu baax tamit yëg na ñaan yi nga xam ne moom la nuy ñaanal fa la seen émission Wadduha tey di àllarba di 16 mars 2016 nu ngi fi fas yéene wettili konteeg euh, sunu wëllëre fa la ndax kollëre day lu rëy rëy rëy te yàlla def muy wëllëre boo xam ne depuis 2006 yàllaa ngi def ni wëllërante ak moom doo it fa tabaarakallaa euh, koo xam ne dañu ko naw lool si gëm yàlla naw ko lool si muñ naw ko lool tamit si nangu lu yàlla dogal barak laa tey gannaaw sunu première invitation bi mu nekkee woon imaam Mouhamed Niang tey nu fas yéene fee wettili konteeg Cheikh Ndiaye fa laa doon koo xam ne mm, danay di def émission si Ndefleng bu ma jumul si Ndefleng FM fa tabarakallah tay moom lañ fi fas yéene kontel konteel sunu demee ba 23h sunu rak Cheikh Ahmed Tidiane mu ngi fi fas no noo gunge si waxtaan bi fa tabarakallah tey xam damay bàyyi Cheikh Ahmed Tidiane ba nu bàyyi gan gi mu nuyoo bu ko defee la nga xam ne la si jamono ak euh, euh, yàqu-yàqu jamono geek gek geek kañaan geek yu bëree bëri yoo xam ne ngi xew te nu waroon koy muslu nu waroon koy daw mu am lu mu si laay biire mbokk yi su paree fa tabarakallah nuy waxaale mbokk yi yëpp soppe yi xarit yi képp koo xam ne yaa ngi def fi sabilillah fa tabarakallah ba ma ko xamee ba léegi mu ngi añ mu ngi reer mu ngi ndekki mu ngi sol lu baax waaye fa tabarakallah ku ittewoo ndimbal la ku ittewoo ndimbal la ndax li ñuy wax nattu muy bët yu muuru yàlla daf ko jox boobu nattu mu ñi ni wooye waaye yàlla fa tabaraka la eh, loolu li gën a bokk si sababu dalal bi loolu si la xam naa suñu bàyyee si Ahmed Tidiane mu nuyoo su pare nu bàyyi ko gan gi su ko defee suñ demee ba 23 heures eh, bu ko defee dangeen nu mën a topp comme fa ngeen daan jaar si Ahmed Tidiane bisimilah. aouzu billahi min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 تحية إيمانية طيبة مباركة نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginnaaw ba ñu sante buur bi subhaanahu wa taala bu baax a baax ñu ngi julli ci sang-sang yi sayidina muhammad salallahu taala alayhi wa sallam di sant buur bi subhaanahu wa taala ci may gi mu ñu mayaat ñu teewaat ak yéen jotaay fii ci seen émission Wadduha ci Almadina FM fii ci RMD di nuyu mbokk auditeur ak mbokk auditrices yi ñuy déglu yëpp di nuyu soppey Wadduha ak fépp fu ñu mën a nekk ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar bu baax a baax fa tabaarakallaahu comme ni nga ko waxee alxaaj Moodu euh, di ziyaar boroom kër gi jiital ci Duudu Kulebali Euh, di nuyu itam sëriñ Abdoulaye Mbengue. Eh, di ko ziar lu bëri di ko ziar lu bëree bëri bëri. Mm-hmm. fa tabaarakallaahu di nuyu euh, suñu technicien bu baax bi ñu jàkkaarloo. alxaaji Alioune mm-hmm. Ndione. Mm-hmm. ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. fa tabaarakallaahu waxtu jot ci heure bi ñuy wéttalantu koog moom mu nekk ci technique bi. fa tabaarakallaahu di nuyu di ziar bu baax. ni nga ko waxee Baye Cheikh mi nga xam ne moom nga dalal. fa tabaarakallaahu ni nga ko waxee nekk nit koo xam ne ku sell la. wallaahi ndeysaan euh, ku gëm yàlla la ni nga ko waxee. Mm-hmm. Euh, ku am pas pas pas la. Mm-hmm. fa tabaarakallaahu ñu ngi koy nuyu moom it di ko ziar bu baax a mm-hmm. baax a baax. di nuyu itam di ziar. sëriñ xaadim rasul Guèye. Euh, di ko ñaanal yàlla yàlla dolli ko tawfiq yàlla boole ñu ko ñëpp barke alxuraan karim kon loolu lañ doon nuyee rek ngeen jox Baye Cheikh. sëñ Cheikh. Ndiaye bisimilah. maa ngi nuyo mm-hmm. na ngi lay fay. Eh, ma yéene ci nuyo bi nag. Mm-hmm. nuyoo bu jotale. Mm-hmm. Eh, nuyoo bi nag ma di ko di ko jëkke ci yow mi nga xam ne nag wax dëgg yàlla. yàlla yàgg na ak jaamam. Eh, yow alaaji Modou Cissé ñu gën koo xam ci Mara Cissé. Ah, tur woowu nag wax dëgg yàlla yomb la ndax dangaa juddu fekk xam-xam mhm. ci say maam mhm. ci say baay mhm. te mujjewuloo puso bi mu réer la te loolu sant yàlla waajur yi fa ñu nekk ku leen yeewante wala nga mën a wax ak ñoom xam nañ sant nañ yàlla waaye nag ma di la sant bu baax di la nuyu jërëjëf Ndiaye nuyu bu gën a màgg ci nuyoo yi bu jógee ci xol nag wax dëgg yàlla jërëjëf Ndiaye ndax nag loo gis dafa am lu ko sabab. Mm-hmm. waaye du lu ñu gàtt nga. Mm-hmm. ñu ngi lay gërëm bu baax di gërëm say auditeur mm-hmm. ak say auditrices yëpp. du nuyu nag sa directeur rajo ak sa technicien bi alaaji Alioune jonn wala Njoon. Njoon. waaw ñu ngi koy nuyu bu baax. moom it ku tey la. ndeysaan. wallaay ñu ngi koy nuyu bu baax. jërëjëf ndax <laughs> man damay liir bu ndaw. yàgg ci loxo. wallaay. nu ñu ma tee rek xam naa xam nga tàng loxo am na sedd loxo am na. <laughs> xam nga léeg-léeg nga gis liir boo xam ne day jooy. kuñ ko jox mu gën a jooy. <laughs> waaye nga gis mu jox ko keneen te du yaayam mu noppi. wallaay ndeysaan wallaay. xàmmee gu mel noonu nag. ku xaw a am ay fan ci àdduna bi da ngay xaw a xàmmee xaw xàmmee bu xaw a mel noonu. wallaay nag sa rakk. Mm-hmm. di sa xarit. Mm-hmm. ku xam place bi la yàlla teg. Mm-hmm. te mu teg la fa. Mm-hmm. may ñaan yàlla yàggal leen lool. amiin amiin jaay li ngeen mibat ci diggante beeg mbokk gi yàlla na ko yàlla eggale muy Serigne Cheikh Tidiane Gadiaga nit ku tey mm-hmm. moo nekk sa bunt ci doomu aadama yi. Mm-hmm. waaye nag eh, ah yàlla la ko tànnal de. yàlla la ko tànnal yàlla def ko mag. Eh, Mara Cissé ñu di la nuyu bu baax. jërëjëf Ndiaye di la nuyu nuyu bu am fu mu jóge bu jóge ci xol. jërëjëf Ndiaye di la gërëm ngërëm lu am fu mu jóge waaye amul fu mu yem. jërëjëf Ndiaye di la nuyu bu baax di nuyu say auditeur ak say auditrices ak say directeurs yi ak techniciens rajo bi. ñëpp ngi lay fay Ndiaye. ak mboolem kuy dégg rek. ñëpp ngi lay fay. di gërëm bu baax. ñëpp ngi lay fay Ndiaye. Mm-hmm. ma ne ko macha allah nu ngi am mbégte lool jotaay bi maam ak yow ndax eh, eh, ni ma ko waxee rek. ku leen gën a jege yàlla bariwul maa ngi dégg benn xissa benn mag bi nga xamee ne bi feebar bët yu muuru dal na ko nu naan ko fajul mu ne déedéet damay sant yàlla <laughs> ndax li nga xam ne bàkkaar boo gis rekk la koy sos ñaare bët se la <laughs> su ko ko yàlla xañee moom day sant foto <laughs> fa tabarakallah jamono it ñëpp xam ne jamono tëddee nga macha allah muy xaw di am nu muy mel si ñi nga xamee ne bi yàlla tegul leen boobu natt rawatina ki nga xam ne bi yàlla daf ko koy teg loolu li gën na doon sababu tey nu wettali kon teg fii pour mbokk yëpp dégg la mbokk yëpp xam ne jàmm yàlla bu nangu la ko yàlla nattu la waaye jàmm yàlla bu soxla it ku ko dimbali la fa tabarak la te duy doon ndimbal jaamu yàlla la sa la la yàlla jagleel sa la la yàlla jagleel say xéwal nga jaamu si yàlla noonu lañ koy gisee si na Tidiane alhamdulilah mhm. comme noonu nga ko waxee rek Baye Cheikh macha allah nu nuyoo bi rafet na te matale na mhm. euh, comme noon nga ko junjooy rek bu ko defee euh, mbokk yi euh, bàyyi ko xel bu baax a baax a baax Euh, jaamu ci yàlla xam ne jaamu yàlla comme niñ koy waxee rek yemul ci allahu akbar asalaamualeykum mm-hmm. waaye alquran mooy wax ni wa taawanu alal birri wa taqwa mm-hmm. wala taawanu bi ismi wal udwaan mm-hmm. na ngeen dimbalante ci mbaax ak ragal yàlla waaye ni ngeen mooy di dimbandikoo ci bàkkaar wala noone wallaay wallaay fa tabarakallahu lan tanaalul birra tamit xataa tunfiqu ma tuhibbun wallahi wallahi ma ne ko loolu muy lu am solo kon fa tabarak la seex sëñ Seex Njaay wallahi bi ngay indil mbokk yi tey Euh, am na yu bëri nag yoo xam ne macha allah daan naa ko faraatu si say kaddu <laughs> si jotaay yoo xam ne dan dan naa koy am ak hmm, xam naa ne daal. <laughs> di kontaan bu bokk na si kumpa day laxasoog seytaane. Hmm, hmm, <laughs> ah, wax lu bëri. ko jëlee. Ah, kumpa day day tàggoom seytaane. Eh, eh, eh, ndax li ko waral mooy. Ah, euh, bu dee. picc yi tax yeeg yu demee noonu xeetu picc yooyu bu ci nen. Mm-hmm. nen ya du doon benn du doon ñaar. Mm-hmm. waaye bii mën bu testane bii mën naa baax. Mm-hmm. bii mën naa ñàkk a baax. bii mën naa nekk picc mu góor. bii mën naa nekk picc mu ndaw. ndegal picc mu jigéen. bii mën na nekk picc muy dund ba ami fan. bii mën naa am. biñ ko testane rek la euh, dal di ñàkk bakkanam kon euh, wolof moom dafay waxam da koy leeb toujours te boo ko tekkee muy njariñ lu bari mooy kumpa tàggam saytaane euh, kum ndax kumpa tàggam saytaane la ah, waaw <laughs> ndax tey jii bu ma la gëjee gis ah, am lu ma war sama digganteeg yow <laughs> mbaa ñu waxoon ñu sos waxte wax ja eggut wala nga woo ko jotuloo ko. <laughs> waaw ma kii daf maa minimise. Eh, eh, kii kay daf maa yëgatul. Eh, kii kat moom jamono dem na ba soppi ko. Mhm, mhm. fekk bu ñu toogee ba nga xam ne. Mhm. nga wax ma li li waraloon dégguma la. ndax di chargé portable bu widd mu ngi fi. mu wadd mu ngi fi. dootoo kooku boo ko wooyee mën nga am keneen ngay jot wala kooku sange puce bi. konte man ma foog ne danga maa minimiser minimiser fekk gisawuñu. Mm-hmm. tàggam saytaane ngi. wallaay wallaay wallaay mm-hmm. moom tàggam saytaane la waaye li ci mën a dimbal nit daal mooy. Mm-hmm. tey. boo teeyee. Eh, mm, tey woon boo nee tekk rek tekk woon la yoon. lam salaam. tax na daal. Eh, loolu lu mot a bàyyi xel. tey tey ak teggi xaw na nuroog teggin. waaw ah. eh, sëñ Cheikh teggin. du luy wàññi ku tuuti rawatina si xelal yi. ah teggin wàññeeku mm-hmm. wàññe wàññeeku na. Mm-hmm. teggin wàññeeku na. Mm-hmm. ak mbokkit wàññeeku na. dox ak mbokk. waaw taakam solo. ndax teggin moom. comme léegi sawaa sawaa sawaa rek. kenn eh. dootul egg ci sant. wallaay daanaka xam nga yow mën ngaa dëkk ak nit ci benn kër te doo xam turam. doo xam turam lu may santam. Mm-hmm. njaay moomu rek. Mm-hmm. siise mm-hmm. moomu rek. te nuyoo wala nga nga nga romb ko rek yëngal ko bopp wala nga tàllal ko loxo. te loolu. Eh, walla nga ñëw ci mbooloo nuyoo nuyoo boo xam ne nuyoo bu gàtt la te waroon na yaatal. ndax koo nuyu nuyu bu bu bu yaatu. di nga xam ci moom loo xamul woon waaye soo gàttalee nuyoo bi am na loo xam ne doo ko xam ci moom. wallaay ndeysaan te kon te kon nuyoo dañ nun la nuyoo rek nuyoo nuyoo bu gën a màgg fayal fayal bu gën a màgg. am na benn naar bu nekkoon Rue Hall ci Dakar. Mhm. boori dafa waxoon ne waxtaan bu gàtt baaxul. Mm-hmm. nee na waxtaan bu bu bu yaatu moo gën bu gàtt. ndeysaan. Mm-hmm. ndax waxtaan bu yaatoo lu ne njëriñ dina ca mm-hmm. Eh, te waxtaan gàttal gàttal gàttal nuyoo. wala gàttal gàtt gàttal ay wax bokkul si teggin. ndax tey jii. boo fekkee ku ñëpp eh, jox cër. nga ñëw jox ko cati baaram bokkul ci teggin. wallaay ndeysaan nga ñëw rek tollu fee eh, jaar ca tur wa am noo ko war a màggale ndax mm. yàlla moo ko màggal te màggaloo ko wallaay dëgg la dañ koy wàññi nga ci ram koy lu bëri mm. mm. manki war ma boo gisee nit ki dem màkka mm-hmm. ñu naan ko alaaji diw mm-hmm. waaw e, e, kii diisul ci ki ko ki dem màkk waaw mm-hmm. bismillah diisul ci ki dem màkka ba ñëw boo ko ne Cheikh Ndiaye rek waaye boo ko ne alaaji Seex Njaay dina xam ne mhm. iñaane woo ko dem màkka gi wallaay wàcc leen nit ñi seen wàccuwaay xam nga xam nga xam nga li ci yoonu makk wallaay wallaay wallaay nga wax ko ku jigéen ki ajaratu dëgg la dëgg moom it dina xam ne e, iñaane woo ko mhm. waaye jox nga ko cëram yi tamit mhm, xam nga it li ngeen bokk muy njulit gi jox nga ko akam yi tamit waaye nit dafa bëgg boppam ba tax na boo ko cofee rek yu si dañuy dal di wadd. wallaay ndeysaan wallaay. Ah, wallaay te mhm. lu ëpp aadama. moom na naan koo teral tër nga ko. ah mhm. ko beneen ba safaan beneen ba contraire ba nun ko waxee. ah, <laughs> ah sëñ jàppaloo ko de. Mhm. am jàpp ma ko de waaye koo tedd dil moom bu la deful noonu it lee muy sa noonu de koo toroxal toxal nga ko waaw allah koo toroxal yaa ko toxal <laughs> waaye koo teral yaa eh, ter nga ko mm-hmm. ak mbokk nag <laughs> eh, eh, de ci waxtaan bu baax waaw lu am solo lu am solo ndax li tax sa émission mm-hmm. di nga joxe ay njariñ mm-hmm. tey jii sax de danoo bëggoon a def laaxee biir tuuti si muñ Mm. waaw ma ne ko moom laa doon waxtaan ak sëñ Cheikh mais comme que macha allah. Mm. tey yaay sunu gan dañ lay jox lépp rek. ngay looy laaxee biir mbokk yi. déedéet ko ondil <laughs> delloo na la lépp Ndiaye. waxam moom lépp xikma la moom. Mm. dox ak mbokk daal. Mm-hmm. muñ moom lu am solo la ndax. Mm-hmm. boo waxee ci muñ sax war naa ci sawar ndax ñun. wallaay ndeysaan ci muñ rek la ñu war a. wallaay wallaay dëgg la dëgg la. muñ la war a. dëgg la dëgg la. Mm-hmm. ndax bu ñu muñul du sotti. Mm-hmm, mm-hmm. ki nga xam ne loxoom jotul gannaawam. te mënul li nga xam ne ñu bari mm, mën nañ ko. wax dëgg yàlla te it. ma dégg ci yéen ñi jàng ñu ne inna allaha ma saabir. wallaahi lu wér lu wér muñ yi wallaahi wallaahi. ah. kon bu nu yàlla nattoo lenn li tey tamit yàlla bu la nattoo lenn li mhm. moo xam laago la moo xam ñàkk mhm. moo xam feebar te nangoo ko mhm. coono rek la lay dikk ko nangoo yàlla dana woyof ba ubbil la bunt dëgg la dëgg waaw waaw loolu daal moo tax muñ lu yaatoo yaatu loolu kenn mënu koo jeexal wallaay wallaay loo wax rek am na loo bari waaye nag woy laago moom yal na yàlla def ñëpp. Mm-hmm. ñu am muñ ak tey. Mm-hmm. Mm-hmm. waaye woy laago it. yal na ko yàlla roofal muñ. wallaay wallaay te nu war maa leen xam nga laago. dafa metti metti goo xam ne. wallaay wallaay Njaay. xamoo ne sëriñ Alaaji. Mara. xam nga laago yëpp silmaxa ci gën a metti wallaay wallaay moo ci gën a metti wallaay maa ngi dégg Alhaji Ibrahima Sakho benn waxtaanam hmm. mu ne xool ba ràññee ba ngay ràññee sa doom si mbooloo mi hmm. nee na loolu rek kenn mënu koy fay hmm. su si borom bi doon facturer nit dane boobu facture kenn mënu koy fay kon fa tabarak laa kon loolu nga wax ne kersa gi kersa gi nit Mm-hmm. ëmbal ñi nga xamante ni ay lafañ lañu man dinaa ko wax ndax handicapé laa mën naa waxee nii. Mm-hmm, mm-hmm. man kom gumba laa. mën naa wax ne lafañ. mën naa wax ne gaana. ndax tamit am na fu may dem foo xam ne yu mel noonu laa fa nekkal di fa wax. di ci def intervention. di ci gindi nit ñi ci seen dund ak seen dundin. waaye kon nag. pour du ma ñeebloo wax. wallaay loolu yéen yéen a am yërmande bañ a jaar ci loolu. Mhm. ngir teggin. Mhm. te teggin baax lool. wallaay wallaay ah, waaye nag macha allah waaye nag su ma bëggee leeral. Mhm. te yéen jàng alxuraan xam ngeen ne alxuraan bëgg na teggin waaye terewul buy jàngale. wallaay wallaay jaar ca fa na mu nekk. wallaay wallaay Ndiaye tudd ko na mu nekk. kon nag man su ma bëggee waxtaan ci wàllu handicap. foog ma tuddul bañ a ñeeblu tur wi. Mhm, mhm. xam nga ñu ngi naan silmaxa. Mhm, kooku yëpp ay teggin la lu nu neex la. wax bo ñii da diw da dafa sëgg. diw de silmaxa la. yooyu yëpp ay tur lañu. wallaay yoo xam ne ay teggin a ko lal. waaye nag teggin yi li ñuy bari bari xam nga ba ban moonu gën a neex a ñun silmaxa yi. waa yàlla. waaye yàlla. waaye yow. kan moo na kan moo ñëwee taxaw ne du ma bëggumaa nekk waa yàlla. wallaay wallaay wallaay kon ñun buñ ñu ko askale askanalee kañ suñu xol day sedd. wallaay ndeysaan wallaay wallaay waaye yàlla. ñuy ñaan rek yàlla dolli nu muñ. Mm-hmm. ñu dolli nu muñ ndax ñoo war a muñ. Mm-hmm. ndax ki war a mën te mënut. Mm-hmm. ah ki ñu fooge ki ñu fooge ku ku ñu fooge tele yu bari. doonte am na xel yu xelu def lu bari. moom bu waxee wax ju jub sax ci mbooloo dañ koy xoolaat. Mm-hmm. moom nu mu ko xamee. Mm-hmm. Mm-hmm. xoolaat wuñ ne dañ naan moom nu mu ko rek. waaw ki yàgg a kay xanaa xelam bu dee xel di dara war naa xam dara. wallaay wallaay wallaay. waaye nag comme dégg na rek. E, moom mu ngi waxtaan. te xelay waxtaan. te mu ngi xelam naagagul. ñu geesi na nu mu ko xamee. Mm-hmm. bu buggee dugg ci yenn benn yenn domaines yi sax mu ne waaye kii dafay sob lu mu ko xamee mm-hmm. Mm-hmm. te yow xam nga ne eh, yàlla dina jël ay bët bàyyi fa xel bi wallaay ndeysaan dina jël ay tànk dina jël cëroo cër mais mën na faa bàyyi xel bi te gis nañ ko ba tàyyi te am na ñoo xam ne ay handicap la ñu nekk ay kilifa ci réew yeneen réew yi te it tamit boo ko seetloo fii. am na mm-hmm. ñu fi yor ñu nekk handicapé am nañu responsabilité yi ñu fi yore. Mm-hmm, mm-hmm, xam naa ci ñu bari nekk kilifa. nit ñi diisoog ñoom ndax seeni xel. ku jaaxle dem diisoog ñoom mën naa la ci wax ñu bari bari. waaye kenn foogewu leen ko. handicapé yi jàng alxuraan. booy dem ci wàcce kaamil. wallaay wallaay wallaay wallaay. Mm, ku mel ni Mamadou Diakhaté. ku mel ni Serigne Mandoumbe. Mm-hmm. ku mel ni Serigne Bassirou Fall Ndiakha. Mm-hmm. ku mel ni sëñ Babacar mbay xam nga dégg nga ko. Mm-hmm. xam ngeen ko. Eh, ñëpp wóolu nañu xam-xamam. te silmaxa la. wallaay wallaay wallaay. kon nag eh, waaye yooyu yëpp kenn foogewuñ ko. ku ku dëkkul ak ñun jonjoo ak ñun rek. booy dégg ci ñun yenn yi sax doo ko gëm ndax silmaxa yi dañuy composé seen portable. wallaay wallaay silmaxa bu waxee heure sax. <laughs> ci montaram ñu ne waaw nu ngi ko xamee. <laughs> Eh, tubaab yi moom dañoo se dañoo bàyyi xel silma handicap wallaay wallaay ndeysaan eh, tubaab yi. Mm-hmm. dañoo bàyyi xel. Mm-hmm. handicap. Mm-hmm. Eh, comme suñu réew réew mu ndaw la nag. koo xam ne eggaguñ fa. fa yéen a bu fa yéen a ja eggee te mën-mën ba eggagu fa yi tamit. ñenn ñi duñu mën a xam loolu. waaye ñiy génn xam nañ ne. di dem bitim réew xam nañ ne way laago ya fa ne. tubaab yi nga xam ne ñoom mën nañu seen bopp. Mm-hmm. bàyyi nañ leen xel ci yu bare bare bare bare. Mm-hmm. Mm-hmm. néewuñu rek ñii dañoo am laago kenn du kenn du leen mën a defal dara. kenn du leen mën a waxal dara. kenn duñ leen mën a jéemloo dara te ah ak kay. wallaay wallaay. boo fi mu ne nag xam nga ne léegi dem màkka jub si. waaye léeg ñu may <laughs> koo xam ne dafa am handicap. biyee màkka. nga dégg ku ne ah, moo kooku moom nu muy demee màkka teen koo jox diw <laughs> am na de wallaay dëkk la dëkk la waaye terewul nag mhm. li yàlla dogal kenn mënu ci wallaay wallaay njaay handicap yaa ngi dem màkk mhm. at mu jot ay handicap a jóge fii dem màkk mhm, dëkk la dëkk la te léeg-léeg nag ñu di leen gàllankoor nguur gi du leen gàllankoor nguur gi gàllankoorul loolu moom docteur gàllankoorul loolu mais tey jii boo ko bëggoon def ci misaal mën naa am sa nit ne ah moo teen koo jox keneen nag. kii nga mm-hmm. xam ne demam màkka nu muy demee. Mm-hmm. nangam ak i nangam. Mm-hmm. waaye nag ñu ngi dem. di dëkk nag. ba ren ji kon nag. Eh, ñun ànd nañoo way mu ngi. wallaay ndeysaan waaye sunu xel suñu sañoon nag waa réew mi. xam ne itamit laagu ak xel wuute na. wallaay ndeysaan dëgg la dëgg la. loolu daal. ginnaaw loolu nag ma di la gërëm. sa mhm, soppey Wadduha yëpp ngi lay déglu. di la yàlla bu nu yàlla boolee si ñooñu nga wax ndax man naan ne bokk nga si ñi nga xam ne njëkk naa jóg seeti leen. Mhm. fii dakaar ndax loolu yàgg na. wallaay ndeysaan. Eh, te macha allah loolu cofee la ko waraloon. Mhm. Eh, bokk naa si ñi nga xam ne cofeel gu am sama diggante yow la gën a rëy si nit. te mooy njaboot. yàlla dénkoon na la njaboot nga wax ma man maa la koy tuddal. waaw te booba sori naa maa ngi woon njaareem. nga jóge njaareem ba waaw ma def itte lool dafi itte ba macha allah ba ñëw fa loolu lépp di wëllëre di. tamit cofeel goo xam ne yàgg naa dox sama diggante ak yow. Hmm. Eh, nu ngi ñaan kon si barke Doha. jotaay bi nga am fii si RMD rajo municipal de Dakar. Hmm. nu ngi ñaan yàlla barkeel jotaay bi. ba macha allah li nga fi wax yëpp. mu dafa amoon benn woykat boo xam ne. Mhm. dafa waxoon ne boo ñàkkee di ut tëdd amagoo demal fa nga yaakaar du moo lay fajal. Mhm, mhm. kon nag comme yàlla dogal na nga dalal ma fii te yàlla def. ngay sama kóllare yàgg na lool. te ñëpp xam ci yow lu baax te kat. waaja def ne. Mm-hmm. wanaata xam la ca déeg ba moom mi naan ba ca ban ba <laughs> ñu la xam ñépp ñëpp <laughs> njëkkuñu ma njëkkuñu ma laa xam mm-hmm. ndaxit it sa ndimbal yi tamit mm-hmm. ma yàgg koo xam te it ñi ngay jëfalanteel ñëpp ñu di la seeral ak mbaax ci rajo geeg yërmande ah gënuñu ma laa xam te itamit Euh, mën naa wax ne. Mm-hmm. bokk naa ci ñi ngay njëkk a defal teranga te ba léegi yaa ngi may defal teranga. Mm-hmm. di ko mm-hmm. defal it ñoo xamante ni. ay handicapé lañu comme man. ndax itamit bu koor jotee korite wala tabaski. dangay dajal ay. ndimbal solidarité. waaw wax dëgg yàlla ak yonent bi. Euh, tasaare ko ci woy néew doole yi ba ci man mi. wallaay wallaay wallaay kon nag su ma ñëwee ba fii. Euh, séeréer dafa wax ne xaañ mm-hmm. maatawu dee laaru ngeel kon xaañu xaañu jaamu tukulóor loolu xaañu xaañu fa lañ koy dëngal eh. kon xaañu xaañu fañ koy of eh. fa lañ koy dëngal ndax mu sedd eh. kon nag ma di la yëgal ci émission Wadduha bi mm-hmm. di la diisaat sama bopp ni ma la ko daan diisa di la diis di ko diis say soppe wallaay wallaay wallaay ma am pàkk boo xam ne wax dëgg yàlla mm-hmm. ah daaw ba mu ngi foofu ñu mayoon ma ko mm-hmm. te boo moytuwul daañ ko jël ndax awma lu ma fa def wallaay ndeysaan ma di la ko diis di ko diis say soppe yàlla baax na wallaay woy ñuy dégg ñuy dégloo ngi lay dégg kon daal ñuy dégloo ngi lay dégg. loolu fokk ma wax ko fii. incha allah Ndiaye. Eh. si barke Duha. si barke Duha na si yàlla def lu kawe njort. amiin waay nu message bi jàll si ñi kilifa ya gën a mag si ñi jiite réew mi. amiin waay si ñi jiite réew mi ñi jiite gox bi. Mm-hmm. ñi nga xam ne bii yàlla baaxee na leen teraanga. Mm-hmm. te nu man see jaamu yàlla. Mm-hmm. ndax ni ko sëñ Cheikh waxee léegi. si na jaamu yàlla du julleek woor rek. ndax baraana koo xam ne bii aju màkkam mën na ko def si doomu aadama eh, ndax aj ba jiitu mooy farata kon dem fa ay yoon ñaare seet ñoo xam ne jàmm yàlla ñu eh, am ñu seen loxo jot ci seen gannaaw nga betteel yenn xéewal yi yool booba mën nay ëpp fu fa tabarakallah te na ma koy yàgg di waxee rek si ne eh, réew mi ñi nga xam ne yàlla def na nu mënee gan nan yokk jaamu yàlla si jaamu yàlla yi ndax fa tabarakallah ni ko kilifa bu mag waxee woon di sunu maam sëriñ Salihu Mbàkke si ne ñaari biir yi benn bi moom ki la sàkk dana la fàggul loo si def waaye beneen ba nag loo fa deful doo ko fa fekk te mooy kon nan yokk jaamu yàlla si woy néew doole yi te baraa na si ñoo xam ne bi fa tabarakallah mën na noo déglu message bi xaj na cawarte ga wala seytaane mën leen di not waaye suñu leen tuddee woon loo xam ne ñëpp a koy yëg danañ wanewu dana wonewu seen bopp bu baax a baax a baax amaana loola àddina rek àddina rek nga say am waaye nañ jaamu yàlla si jaamu yàlla yi fa tabarakallah comme ni ko euh, sëñ seex waxee sëñ seex njaay fa tabarakallah seex ma tijaan alhamdulilah <clears throat> ci laay bi yi am solo Baye Cheikh joxe waaye lii benn boroom xam-xam di wax rek nee na handicapé ñaareel buñ ko tuddee rek xel yi day dem ci ku bëtam muuru walla ku ay tànkam wàññeeku waaye nee na handicapé dëgg dëgg dëgg mooy ki yàlla jox ay cëram mat te cër yi du ci bàyyi xel boroomam du ci jaamu yàlla nee na booy seet xaqiqan kooku moo handicapé mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. ki yàlla may ay bëtam muy gis may ko ay cëram yépp mat te la ci te la ci yàlla gërëm du ko ca def wala du yittewoo liggéey pour mën a dundal njabootam nee na booy seet daal ci dëgg-dëgg sax kooku moo moo moo moo handicapé fa tabaarakallaahu ñuy wax ci benn xissa benn nitu yàlla baax mu faatu Euh, nee na waaye nekkoon koo xam ne ku jàmbaare la ci jaamu yàlla. ah xëy na njortam ci lim jaamu mu yaakaar ne xëy na mën na koo rambu. mu wax boroomam daal nee na ko àtti ci jëfam te bañ koo àtti ci yërmaandem. waaye nee biñ ko indee facture xool. loo bëgg a xool mën koo gis facture boobu rek lañ ko indil. lam jëfoon ci lu baax yépp mënul fay facture boobu mu far ne yàlla na ko jéggal ci àtte ko ci yërmaane mm, mm, mm, kon li Baye Cheikh wax ne handicapé yëpp bi ci gën a métti mooy ñàkk a gis wallaay dëgg la waaye la leen yàlla dencal ëllëg xam naa ko ci yàlla wanoon kon danga ko sant ci ki nga xam ne ànd naag euh, andi handicapé boobu dana ko gën a sant bu baax a baax te ñaareel tamit ni ñu ko waxee. ñaareel ku ko ci yàlla teg tegi day mel ni bala ko yàlla teg da lay jiital roof xolu muñ ba pare. wallaahi wallaahi wallaahi. ndax ñu ñu ñu mën a muñ leen. wallaahi ñu ñu nangoo jàmm yàlla ñu nangoo jàmm yàlla. <laughs> xam nañ si dara ndax macha allah. bëri mm-hmm. nañ si wëllëre. Mm-hmm. bëri nañ si ñoo xam ne bii toujours dañuy gastu mm-hmm. dañuy gëstu si ay askar dañuy gëstu si. yoo xam ne bi macha allah da leen gën a jegeleeg borom bi. dëgg la mhm. yitte booy xool sax. Mhm. ñoom ñi seen i bët muuru yitte ji ñuy def ci julli jumaa. Mhm. dem julli wala juróomi waxtu ñu ko jullee ci mbooloo ma. fekkut sax ñi nga xam ne seen seen i bët mu ngi xool. wallaahi loolu rek kon day wane ni nattu bi nga xam ne dal na seen kaw nangu nañ ko. waaye yàlla mi nga xam ne moom moo moom moo leen ko teg. te yàlla mi nga xam ne lu mu def dafa am teguwaay. yàlla moom moom mu ngi fi te moo leen di dimbale te du leen seetaan. Mhm, waaye mhm. fa tabaarakallaahu mhm. ah, yàlla nag eh, moom comme ni niñ koy waxee rek du wàcc teg sa loxo. waaye daf lu mu lay jox rek day am fu mu koy jaarale. wallaay wallaay wallaay ndax benn xadis mu ngi wax. ëllëg yàlla mën na jàkkaarloog jàmm bi ne ko yow de dina am ak yow problème. ndax dama feebar te seet si ma. Hmm? dama amoon soxla sàngam fajaloo ma ko. Mm-hmm. bu defee boo jaaxlee ne waaw loolu nan nan la mën a nekkee. Mm-hmm. Mm-hmm. yow nooy feebaree ba ma lay feej euh, seet si wala nooy amee soxla ba ma lay fajal soxla bi mu ne sama jaam diw feebar sàngam sàngam daloon na ko. mu mu soxla woon ndimbal lool mais te ma xéewala la woon man sama kàttan loo ko mën a dimbalee te dimbale woo ko. kon boobaa da yeey. dale boobaa dalay yeñ wallaahi wallaahi wallaahi yal na yàlla barke jotaay bis barke duxa amin mm-hmm. amin mm-hmm. te rafet nañ jot ni incha allah ndax macha allah boo lewoon nan mm-hmm. si programme wadduha mooy wadduha solidarité xaj na macha allah lépp dafa mateegu rek mais bu nu sañoon weer bu nekk macha allah ay téeméeri téeméeri kër la ni yóbbuy xewal waaye lanu ko yàlla man loo fanu sa toll nu ngi si daw suñu kéem kattan de si talal ñëpp loxo it comme nan koy waxee rek ndax macha allah eh, bari na jaamu yàlla yoo xam ne yàlla dana fay def seen yaakaar te yéen wun yaakaar di fay tase ko ñi nga xam ne bi macha allah yàlla kàttanal na leen nu bëgg jaamu yàlla si seen wërsëg nu ngi siy talal loxo ñëpp jiital si solidarité partage bu première dame ak képp koo xam ne bii fa tabarakallah yaa ngi jaamu yàlla si doomu aadama yi sëñ Cheikh Ndiaye Euh, alhamdulilahi rabbil alamin di gën di bëgg rek mm-hmm. ndax kat ñi nga xam ne seen loxo jotul seen gannaaw mm-hmm. ak ñi nga xamante ni yàlla am na lu mu leen nattoo moo xam nopp bu neexul la moo xam wax jaa leerut moo xam loxo yaa bañ moo xam bët yaa bañ mm-hmm. ñu leen bàyyi xel wax dëgg yàlla duñu mën lu may di la ñaanal yàlla. Mm-hmm. yàlla gën laa dëgëral. amiin Ndiaye yaa ñi nga bokkal pos-pos ak ñi yéene. amiin Ndiaye. ndax it nag. Mm-hmm. ah wax dëgg yàlla kenn eh, nit bo dañ ne koo xeebal soxlaam yaa ko gaañ. yàlla wallaay wallaay la kon nag. Mm-hmm. ñun ku ku sa xel dem ci ñun. ñun ñu lay ñaanal bu baax. bàyyi la xel bu baax. di la ñaanal te it nag. ah. ñun de tur bi nu neex mooy waa yàlla boo tax na. Mhm. wax nga ko léegi. Mhm. bari na ci ñoom ñoo xam ne dañuy gëstu. wallaahi dëgg la dëgg la ngir jege yàlla. wallaahi wallaahi ngir ñaan yàlla yàlla faj. wallaahi dëgg la dëgg la dëgg la boo demee ci yenn jumaa yi. Mhm. lépp lu xew ci réew mi. mu mel ni tiitaange wala nawet bu guddee. dañuy booloo talaata. di ñaan. àllarba. am na fu ñuy tase di ñaan. Mm-hmm. alxames am na fu ñuy tase di ñaan. Mm-hmm. jumaa yi fu ñu jullee ba pare. Mm-hmm. bu neexee <laughs> ilimaanu jàkka ja. dinañ ko àbb ñoom ñu des fa ñaan. te dinaa ci wax firnde ndax euh, Ricardo Angle Balansor. alaaji rawaan mbay di ko jiite. defe naa ne ci rajo laay waxee. bu ñu jullee ba pare. loolu miin nañ ko fa léegi boo dañuy àbbi caabi yi rek des fa. Mm-hmm. di ñaanal réew mi. macha allah ndeysaan di ñaanal réew mi te looloo ko rëy. loolu te. ak rëy loolu te kenn xamu ko. wallaay wallaay ñoo xam ne réew mi. Mm-hmm. bu fi jàmm saxee rek. Mm-hmm. Eh, ñoom jàmmal ñun ñun dañoo foog ne ñun rek la jàmm jàmm jig. pourtant jàmm ji gàddiwul kenn. wallaay wallaay ji gàddiwul kenn waaye nag ñun moom. mënuñoo daw mënuñoo def leen. lu mooy rek. ci jàmm daal la ñu mën a nekk li gën a gàtt. moo tax bu bu bu nawet bi yéexee. Mm-hmm. toujours ñu ngi ñaan même bu loolu yëpp amul. Mm-hmm. bés yi ma lay wax yëpp handicap yi dañ koy dajaloo di ko ñaan. Mm-hmm. di ko ay ayloo ci bii kër. ku am soxlaam. ku leen xamit te am sa soxla ñëw ñu di ñu ñu fasaale la. wallaay ndeysaan wallaay léeg-léeg nit indi fa teraanga. ñu ñaanal ko. wallaay dëgg la dëgg la altine talaata alarba bu àccuma ci jàkka yi. bu ko defee ñoom ci seen biir sax. Mm-hmm. dinañu laajante. Mm-hmm. Mm, lu waay am ci ñaan gi. Mm-hmm. ñu jox ko kenn. di ko dajale di ko dajale ba am at. ñu def ko ñaanul général nag. loolu day am. wallaay wallaay day am te ñu bari xamuñu loolu. yal na yàlla nangu lépp. waaye buñ nee garaw bi metti na. Mm-hmm. ah waay moom de waaye dëkk bi nangam nangam. Mm-hmm. ñaan nañ ci. Mm-hmm. buñ nee ah élection yi lee mu ñëw. ñu ñaan ndax jàmm am. wallaay ndeysaan buñ nee nangam ak ki nangam lu ñu wax rek. te xam ne ci réew mi la. ñaan nañ ca te bari na mhm. ñoo xam ne xamuñu loolu. wallaay wallaay wallaay loolu it lu mot a xam. ci loolu nag wallaay Ndiaye. yow mi mhm. nga xam ne yaak ñi nga bokkal pos-pos seen xel dem na ci ñi seen loxo jotul seen gannaaw ak handicapé yi. Mhm. ñu ngi leen di bàyyee xel ñu ngi lay ñaanal di ñaanal ñu ngi ko bokkal ak ku yéene. wallaay wallaay yal na leen yàlla dooleel. dool leen jàmm. dool leen sutura ak teranga. amiin Ndiaye amiin du ma ñëw boo fii nag te gënumaa dundal dundal ma ni tamit samay samay mbir. Mm-hmm. may nañ ma pàkk mm-hmm. daa waran mm-hmm. te fi ma may am nañu ko soxla te tamit wax dëgg yàlla aw ma fa def ma di la ko diis di ko diis sa Wadduha bii nga xam ne yaa ko yaa ko sos ak ñi nga bokkal pos-pos ak say soppe ak réew mi ak képp koo xam ne ni yàlla mën noona la ko du gis aw yet laa yore di làmb man daal yaakaaruma kenn ku dul yéen. wallaay ndeysaan wallaay ma ñëwee ba ci rajo bi mën a wax ngeen dégg nag. Mm-hmm. ma diis na ko. Mm-hmm. nga jotalal ma ko ñu ko mën a jotal. baax na si barke rajo bi jotal ko waaye ci barke Wadduha bii loolu foog ma dundal ko. fi fedd ko barke wala saw fa yufti karab ko fatarda. amiin loolu daal. <laughs> Uh-huh. foog ma wax ko ci. wallaay Ndiaye wallaay wallaay jërëjëf jërëjëf Ndiaye kon Alxaaji Alioune nga am loonu yëkkatil tuuti. bi Mustafa moo mat a xam maa bëgg yooneen maa bëgg yooneen alladi laa ilaaha illaa huwa arrahmaanu arrahiimu almaliku xiiwal dikkati na jóge ci alaaji Moodu Siise ñu di ko wax Mara Siise mi leen andiloon karafiil xamsuna qaaf ijaabu rasuul samsul bilaat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

mbokk yi wa dua njeriñam upp na njegam juromi junni ngir faj sa mbir Wadduha yàlla moo ci giñ yor yor la léppay leer alaaji Mamadou cisse Mara wa góor allahumma salli afdal salatina ala as'adina eh, jërëjëf alxaji fàllu Wadduha yor yor la lépp ay leer kon fi tabarak laa yalla na yàlla leeral lépp yàlla may nu barke doha te mooy wala laaxiratu xayrun laka mina uulaa waaye barke Duxaay day doon wala sawfa yuxtika rabbuka fatardaa te nee naa ba nu tuddee Wadduha li waratuna famal yatima fala taqhar wa ma saa'ila fala tanhar wa ma bi nixmati rabbika fa hadis di sant yàlla bu baax di ñaan yàlla barkeel jotaay bi nu am ak sunu mag ji di Cheikh Ndiaye di wax ne daaray Duha saa yu nu fi toogee rek wettalikonteeg yéen la si luy jariñ nit si dundam ba tax na tey dana am lu nu leen baaxe ci faatiha muy lu nu yàgg wax tamit ndax saar boobu nga xam ne juróom-ñaari aayat la juróom-ñaari aaya yi da koy tuddaleeg juróom-ñaari fan yi mu mel ni ki alhamdulilahi rabbil alamin moom ngay dippee dimaas mu mel ni ki képp koo xam ne yalla may na la njabot nga bëgg sa njabot nekk tànneef ndax dinaa di insister lu bëree bëree bëri si njabot ndax xéewali àddina yépp njabot bu jub bu nekk tànneef moo si gën ndax dundu ga day nekk njariñ si boo fi nekk moom waaye tamit jiitu ko dem bar sàq bàyyi ko fi day nekk njariñ ndax du jóg di lay yónnee Uh, ni nu ko xaddis waxee ne ku fi bàyyi ko rek léppam day coupé ba mu des ñett bokkoon na si mu bàyyi njaboot gu baax goo xam ne bii mu ngi koy ñaanal kon lépp lu nit di pasteefu bépp itte bu nit di am si njaboot pour mu nekk tànneef nekk royuwaay nekk koo xam ne bii day tege si siraatal mustaqiim itte bu si nit man di am rek na koy yokk ndax loolu nuy wax saxaadatu daaray ni fa tabaarakallaa ku yàlla may njaboot gu baax njaboot gu jub njaboot gu barkel saxaadatu daara yi ni loolu la ndax day doon dund goo xam ne day sax ndax la ni wax dee làqu la rek te saa yoo làqoo njaboot boobu nga fa bàyyi fa tabarakallah mooy mottali sa mission kon nan yokk itte lool lool lool lool lool si njaboot gi tey xeleel nuy war di koy teel a préparé comme nan koy waxee si ni ñu bëree bëree bëri danañ di gën a jox itte dërëm xaalis gën a jox itte entreprise ba wala gën a jox itte magasin ba ba amaana booy wàcc danga ko tëj si caabi yu bëri te wuute doo fayam tamit da ngay jël nit teg ko fa mu la koy gardeel itte boobu nga am nag si loola te nga say ut teraanga itte bu ko raw fuuf moom nga war a gën a am si njaboot rawatina tout tànk ndax xelel loo def sa moom rek noonu la lay màggee fa tabarakalaa kon nan di jiitu ci njaboot gi dinaa koy wax lu bëri bëri te it te ja ngay am sa magasin boobaak la fa nekk lépp bu la nit joxoon fukkam si misaal bu dee capital ba cent cent la su ne la woon naa la jox trois cent millions te nga jaay ma sa doom bi boo amaana boo may tuul dangeen ngeen jotee kon Tektal la si ne macha allah lépp lu nit am si bien njaboot na gën a jox itte si njaboot gi si xelal yi muy yoon boo xam ne yoon bu rëy la nag si koo xam ne bëgg nga sa njaboot mucc mucc si sa yaatin yi te muy loo xam ne bii day gën di bari fa barak laa mucc it si naka sulul noona muy juróom ñaari fan yi fan bu mu si juddu rek da nga koy tuddee bés booba da ngay tuddee jël aaya sa aaya fatiha yi nga tuddee ko boobu si misaal su fekkee bésu talaata la juddu da nga koy tuddee maaliki yow mi diin da ngay jàng fatihatul kitab bàggee si maaliki yow mi diin nga baamu ko juróom ñaar fukki yoon nga àggale saar bi of sa ndox di ko koy nandal wala nga bind ko di koy nandal bindaat koy defal ko ko téere fa tabaraka laa giiru seytaane du ko masa not si lenn lenn lenn lenn fa tabarakalaa bu fekkee ne beneen bés la juddu it da ngay seet la mu tollool si aaya fatihatul kitaab yi wax naa leen ne alhamdulilahi rabbil alamin moom ngay mooy doon dimanche kon xayril mahdubi alayhim wala daalina day doon samedi si misaalit bu doon bésu àllarba iyyaka nahbudu wa iyyaka nastahin moom lay tollool fan bu mu si doon rek nga jël benn aaya si aaya faatixa yi nga defe ko noonu nu ngi koy xaddiyal yaay njaboot yëpp nu ngi koy xaddiyal képp ku xam ne bi fa tabarak la bëgg nga yàlla def sa doom nu nekk tànneef yàlla muccal leen si seytaane ba tey mustaxim si fatixatul kitaab yàgg naa koy wax si ne képp koo xam ne sa njaboot dafa eh, dafay jàdd yoon dese naa jub boo jàng bindee fatiha ba si ihdina siratal mustaqim baatu mustaqim boobu danga koy takraar da nga koy baamu li mu xelal bi li ka nga bëgg mu jub fa tabarak laa koy baamu li mu tëram su fekkee alxaaji la tudd nga ne alaaji 43 la nga baamu ko da say boole sant bi nag nga baamu mustaqim lim bu toll noonu soo paree nga àggale saar bi def ko ndox bu bari mu di koy naan si kàttanu yàlla lépp lu neewoon si moom si safaan yàlla dana ko ko dàqal ba yàlla def xolam muy xol bu leer fa doon koo xam ne bii day tege si siraatal si siraatal mustaqim fa ba tey lii yoon la boo xam ne bii dañ koy baaxee ñëpp képp koo xam ne mën nga koy def kiir laay lay doon si sa dëkkuwaay kiir laay lay doon si kër ba nga xam ne lépp luy xeetu sayaatiin lépp luy xeet luy yàq fa tabarakalaa du mën a am def benn ayib si barab boobu muy ay saar ak ayat yoo xam ne moom ngay bind soo paree nga boo mënee am ndoxu lingom ak caru ngeer bu tooy soo jambee saafara bi ba pare danga ci yokk ndoxu lingom jël caru ngeer ba di koy wis sa kër ga barab boo ko def lépp lu fa nekkoon si tooke si kàttanu yàlla ak barke saar yeeg ayat yi tooke booba day day day yàqu boo seetee lim ba day tollook cinquante nu ne cinquante mooy leen nu ne cinquante mooy xurufu kursi wi ayatul kursi boo doon wàññi xare ya téeméer ak juróom-ñaar fukk lay doon waaye soo doon wàññi baat yi kalima yi juróom fukki kalima lay doon fa tabarak la yoo loolu may wax mooy benn fatiha moom ngay bind juróom-ñaari kursiyu juróom-ñaari law ansalna juróom-ñaari alam nasrah juróom-ñaari ixlaas juróom-ñaari kaafiruna juróom-ñaari fallaxi juróom-ñaari naasi boo seetee juróom-ñaari sept sept par sept day doon quarante-neuf quarante-neuf boo multiplié benn fatiha ba muy doon cinquante muy tolloog baatu kursi yi fa tabarakalaa lii barab boo ko def lépp lu fa newoon di yàq loola day randatu nu ngi koy xadd yàlla àddina bi yëpp billaahi la si laa ilaha illa huwa ku nekk xam na li am na jaamu yàlla boo xam ne daf ma doon wax saa tabax këram miiru këram saa yu ko commencé tabax day daanu te doo xam lu ko daane waaye mu ne ma ba mu foo defee lii si la gëj gis loolu billaahi la si laa ilaha loolu ëpp na ñaari at te sunu yéene nanu koy yàgg yi waxee te yàlla bu nu koy wàcc mooy na ñëpp mucc na ñëpp yokk kon nu ngi koy xaddiyal ñëpp képp ku ko mën def nga def ko ko ko mënul it nga seet taalibe bu set mu defal la ko day nekk gàllaaj day nekk kiir laay si barab boo xam ne bii fa tabaraka la am na lu fa yàq kon ñaar yooyu lan indeendi si daara ji di émission Wadduha tey di mercredi di 16 mars 2016 Cheikh Ahmed Tidiane bàyyi la nga am loo si indi bala nuy ubbi yoon bi si 33 889 83 31 wala 33 889 83 32 Cheikh Ahmed Tidiane. alhamdulilah <coughs> euh, naafile yooyu nga joxe nekk na naafile yu am solo euh, ndax njaboot dañ koy prévoir. boo gisee mag ñi euh, ndimbal gi ñu amoon mm-hmm. sens bi ñu bi seen njaboot amoon ba buñ génnee ci mbedd mi mbedd mi du leen këf wallaay ndeysaan dañ cee njëkk mbedd dañ cee njëkk wallaay wallaay dañ cee njëkk mbedd wallaay wallaay wallaay loolu nag bëri na waajur yow bëri bëri na waajur yoo xam ne mhm. mag bu nekk rek day làq way ma nga fatt suur ndax mhm. boo xoolee mhm. njabootam rek mom nga fay gis mom nga fay gis mom <laughs> mhm. taktal la sine njabot yi nan si jitu Cheikh Ahmed Tidiane mu nek lu am solo te nek lo xamne comme nañ ko waxe njabot gi euh, bëri na euh, kilifa yi tamit dañ ko sagane ñu bëri dañ ko sagane waye njabot balay ñew ci aduna sax ci nga wara commencer diko wajal ko waajal lu wér a wér lu wera wera yep amna am na yoon yooyu euh, jaar seyaatin bañ koy fekk foofu seyaatin bañ ko njëkk ci yow. Mhm. bu ko defee moo tax bu bu demee ba ñëw ci àdduna tamit loo bëgg def ci moom. Mhm. rawatina yar bi nga xam ne moom li lislaam di mhm. wax. day daal di yomb facilement moo tax macha allah kenn di ñoom. déedéet wallaahi wattal suñu yëgee ni a ngeeg daal lu am solo la yooyu dañ ko war di. indi di ko bay xel suñu wee ne toqantal. toqantal loolu lépp macha allah. na nga koy xaw di wàññi fi <laughs> ne ko eh, eh, eh, yu am solo la ne ko yu am solo la waaw moo tax loolu naafila yooyu nga joxe mm-hmm. macha allah kon na ko mbokk yi bàyyi xel mm-hmm, mm-hmm. Euh, di ko di ko jëfandikoo njaboot yi daal fa tabarak la ñun dañoo tuddee xaritu njaboot gi di soxna yu bëri yaay yu bëri diñu koy woowee mooy tax dañ leen yéene lool yéene seeni njaboot te macha allah euh, Cheikh Ahmed Tidiane yàgg naa koy wax ni dafay ñëw balay toog dana sonn balay jógit dana sonn da lay wóor ne kii bu doon nee saafara rek moo ko gën a ittewoo waaye day fàtte boppam sama doom lay wax sama doom sama doom ji sama lay nga xam ne itte jooju jur yi di am si njaboot gi macha allah eh, doon koy war di gën a teelee nag mm-hmm, mm-hmm. di gën a teelee ba sa njaboot ngay moom muy yow mm-hmm, nga dem ba sëñ Cheikh dafa am lu mu si bëgg a dolli bismillah ba Cheikh eh, eh. ma sob <laughs> li ma ci bëgg dolli kay mooy mag ñi démb comme mhm. li nga wax noonu damay dëgëral sa wax ji uh-huh. dañ daan préparé kër dañ daan préparé njaboot dañ daan waajal àdduna mhm, mhm. li si des ñu teg ko ci loxo yàlla wallaahi dëgg la dëgg la dëgg la bu bu boo déggoon ne nit nit nit mu ngi sëy si xam nga gis nga yooyu ñuy ah, natt yooyu ñuy natt ci loxo yaag yooyu ñu dugg fee fas di koy lekk si kaw bopp nangam nangam ak yooyu ñuy def yëpp ngir <laughs> eh, eh. sabab lu rek ñaan ñaan si yàlla rek yooyu yëpp ay ñaan la woon bu ñu nee diw am na doom. Mhm. nga gis la muy njëkk a lekk. Mhm. Euh, toqental yi comme ni ngeen koy def mhm. waaye ba ñi jàngul woon itamit. ak la nga gënaayal xale bi. waaw ak la ñuy def ci bunt néeg ba ak la ñuy roof ci néeg ba ci ba bés ba ba bés buy dellu si. yooyu yëpp dañ koo ginaal waaye nag. kuy dem bu xamatoo fa nga jëm xamoo dangay ngay wëññeeku ñaa ngi wañeeku di. <laughs> <laughs> dafa jot nag ñu <laughs> ngi ma ñeeku de. jot na jot na. <laughs> ndax yooyu. da gis nit euh, bu daan tukki. dañ koy defal loo xam ne du dee àll mukk. Mhm. mën naa ñëw sax ba ami fan rek nelaw. wallaay ci biir bokkam waaye du dee àll. naa si teg bët. ak. Ah, hmm? nit di dem nit di dem armée ci armée yu njëkk ya mobilisé booba ñu daan wax. Mhm. ñu waajal ko mu dem ñëw ci ñu naan defal lu xuus de ñaan ay ñaan la woon rek <laughs> ah. sama sama jaam yi ma dégg nooyee dañ naan jóge France te reer si nag loolu am na. waaye maanaam maara yow tamit bu laal séeréer rek <laughs> waaye daal. <laughs> waaye eh, eh. waaye daal li li li fi nekkoon. Eh, lu ñu tubaabe ndegam dañoo tubaabe boog. wallaay wallaay nañu nañu am na yoo xam ne moom bu ñu àdduna bu soppeeku yóbbu ci loola. te lanu li ne am ak Christ. Hmm. <laughs> li ne am ak Christ ni ko Baye Joxaane waxee ko koy wax ne diw tubaab la rek moo xogaliku. Hmm. waaye soo ko waxee leneen. amaan na mu waaye waaye boo buñ la nee diw tubaab nga ngay xogaliku di niru niru lu tubaab yi tamit. yàlla xam na ko li li li la rëy rëyul ku tubaab tubaab loolu te te ñu baal ma waaye xam nga ne mm-hmm. e, ndox yi ak coono yu metti yi te jom waraloon ko ak liggéey am na am na ci ñoo xam ne ku leen ko def léegi mm-hmm. du baax ci ñoom mm-hmm. ndax tàmmatuñ ko ndox yenn e, ak yenn ndox yi ndax gis naa ndox yoo xam xam nga léegi ndox moo fi wax ñu ne sellut loolu de indi feebar. te mag ñi daan ko la <laughs> gënoon na gudd fan di ko naan te dara daaw leen jot. xam nga li ma lay bëgg a wax. <laughs> naa bu bu njëkk. Uh-huh. ku daan béy ci àll ba. Uh-huh. bu ëllër bi gaañ la. Uh-huh. dañuy wut xobi tabanaani. walla mag ñi ñaan ci rek. mu mu mu dal di wér. Eh, waaye léegi. ku weñ gaañ. Mm-hmm. boo pikiruwul tétanos boo yéexee sax dangay ngay xam nga yi woon noonu yi yi nekkoon dafa nekkatul. Mm. dañoo bàyyi li fi nekkoon. Eh. waaye nag ah ñu ngi koy bàyyi ndànk-ndànk li nga li ñuy dem ci yeneen palaas yëpp da ngay gis ñuy rocce kuy dem seulement eh, ci ci yi fi woon démb de. Mm-hmm. wallaay wallaay ndeysaan. waaw oh. démb macha allah <laughs> démb la am solo la. Hmm. ma ne koy jokk gën a war maal mag ñi it ma ne ko macha allah comme noonu nga ko waxee. Hmm. dund gu tey lan doon dund. gu ànd ak wér. wallaay wallaay te léegi mu mel ni kii dana néew lool nit lay dalee si weewu tànkam ba si catu kawaram amul amul fu di yëg douleur même bu dul par jour doon par semaine wala par weer te yooyu yëpp fa tabarakallah euh, macha allah mag ñi jàmbaar lañ woon sëñ Cheikh da daan gis koo xam ne atam daana limul lool waaye macha allah. danay def loo xam ne ku ko def la woon léegi waxambaane hmm. vingt cinq ans du dem hmm. <laughs> du dem daf jàngat de wallaay jàngat bu rëy rëy rëy sax ba xam lan moo ko wallaay bu rëy rëy ah, rëy bu rëy bu rëy bu hmm. rëy eh, kon kii alxaji Alioune bu amee ku ne si yoon bi si 33 889 83 31 wala 32 bu amee ku ne si yoon bi rek nu jël ko bismillah bismillah aleykum salaam sëñ Abibou premier auditeur jërëjëf ñu ngi ziar yàlla yàlla nangu mbay nuyu suñu papa jooju suñu Cheikh Ndiaye ah dëgg la mu ngi lay fay ah, jërëjëf mbay waaw suñu kilifa boobu moom ñu ngi koy ñaanal rek jërëjëf Abibou am nañ yi ñoom ñu ngi koy bàyyi xel bu baax ñu koy yàlla baax na mbay ko déglu daal ñu ngi lay ñaanal wallaay wallaay sëñ Habib. yow moom képp koo képp koo koo allah wallaay mbay mbay mbay. ndax dañ dañ la torop torop dañ la fonkal rek yàlla tax. wallaay ndeysaan loolu xam nañ ko. ndax yu yu baax yi ñuy digal rek tax ni fonk la. ndeysaan mbay mbay. alxuraan. yàlla def la mag. amiin yaa rabbal aalamiin. yàlla yokk la barke. amiin yaa rabbal aalamiin. yàlla tànnal la soxna it bañ la may jabar. ñaan boobu laa war na njëkkee <laughs> maa ngi nuyu sa kilifa bi ma doon woo. dëgg la waaw maa ngi koy nuyu bu bari dëgg moom moom baax na maan allah loolu dina am solo. baax na jërëjëf sëñ Habibou. waaw suñu baax. na baax na baax na baax na Mbaye. baax na Mbaye. jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Habibou bismillah bismillah bismillah ah, ah waaw 33 889 83 31 wala 32 seen émission wadduha si radio municipale de dakar 95.5. point 5 eh, fa tabarakallah bismillah salaamaaleykum waaleykum wa rahmatullah ñu ngi sant aja alhamdulillah alhamdulillah man de maa ngi door a sax ah ndeysaan ndeysaan waaye damaa dégg léegi seen rek mu nekk wax ju rafet wax dëgg yàlla jërëjëf jërëjëf yan yàlla barkeel nag ñu ngi di ñaanal bu baax jërëjëf yan yàlla nag ko yéen aussi ñaan jërëjëf yan yàlla barkeel kontaan nañ trop wax la aja barak la nu ngi nuyu sunu jarbaat eh, eh, soxna càndum ami kolle 33 889 83 31 wala 32 c'est l'émission Wadduha Radio Radio municipal de Dakar bismillah euh, Cheikh Ahmed Tidiane di nuyu di nuyu di ziar euh, suñ mbok yi nek Joal. Hmm. Serigne Aliou Touré bismillah dafa mëna am na ne ci ligne bismillah. allo waaleykum salaam wa rahmatulah. alxaaji Modou maa ngi lay siyaare. Gaye Gaye Gaye Gaye. jërëjëf Gaye. jërëjëf Gaye. Gaye Gaye. jërëjëf Gaye. jërëjëf Gaye. wallaay ndeysaan. waay waay yàlla. waaye yàlla waaw waaw. Mhm, mhm. muy di waxal rek muy di baat bu rafet macha allah. Mhm, te tur wu neex ñëpp bëgg di wuyoo. wallaay ndeysaan macha allah waaw ndaxte xëy na yàlla am na lu leen sant wante macha allah may nga leen. tuuti wallaay wallaay la muy njënc la ko ëpp. waaw ndax ndax ah, ah, ah, am xel rek la ñuy waxe xel. dëgg la dëgg la. te xel rek moom mooy doomu mm-hmm, aadama mm-hmm, mm-hmm, waaw moo euh, tax na lépp lu mu ci wax tamit day nekk lu rafet na xel lépp lu muy génnee loo xam ne si xel xel nga wax lu rafet wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay am na xam si mi nga xam ne kii ba wax du waxee xel waaw day wax day daate kon nag kon nag xol mooy muuru eh, dëgg la dëgg la dëgg la waaw bu baax a baax a baax wallaay wallaay di rafetlu émission bu baax macha allah. jërëjëf jërëjëf jërëjëf yàlla nag yàlla may xool muñ. amiin amiin amiin baax a baax a baax macha allah. jërëjëf El Hadj Mate li foo lépp li ñu ci bàyyi xel bu baax macha allah. baax na baax na Gaye. li ñu ci mën kàttangal incha allah dañ koy. incha allah Gaye yal na yàlla mottali. baax na mu ngi lay fay sama kaddu. jërëjëf ak auditeurs yi ak auditrices yëpp ñu ngi leen sant yàlla na yàlla barkeel la. jërëjëf alxaaji Modou jërëjëf alxaaji Modou Gaye bu Tëngéej fi la doon ko fidèle si Wadduha 33 889 83 31 bismillah bismillah asalaamaaleykum waaleykum wa rahmatullah ñu ngi lay fay lu soxna di di sant ci bi jërëjëf jërëjëf yàlla yàlla na fay. amiin amiin amiin amiin. dama taara ba léegi doon toppee ngeen di wax ci Faatiha bi ak kii bi cinquante et un kursi bi. may ñaan comme jabar laa rek mooy ñaan su ngeen si mënee dellu ma baax. baax na incha allah natt naa ko dinañ si ñëwaat si kàttanu yàlla. incha allah jërëjëf yàlla jërëjëf yàlla yàlla barkeel yàlla barkeel. bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi na ngeen def. na ngi sant yaram. na ngeen ziar bu baax. yan yàlla nangu te barkeel. maa ngi ci émission bi yaakaar naa. Hmm? man maa ngi ci émission bi. waaw yaa ngi direct waaw. Ah, bu baax. jërëjëf yal na yàlla nangu te barkeel. ñu ngi bu baax ci xéwal yi nga xam jërëjëf jërëjëf. damaa damaa damaa rek damaa yegg sama yegg seet xaw a yees ma ko bu ko baamul rek. waa si kattanu borom bi noté naa ko dinaa si ñëwaat léegi incha allah. waaw baax na waa. yàlla suñu yàlla suñu borom fay. amiin amiin yàlla barke la yàgg yàgg la si lool. amiin amiin amiin. amiin ci barke sang bi. amiin amiin amiin. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. jërëjëf <laughs> bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi ziar. yal na yàlla nangu doon déglu émission bi léegi émission bi neex na loolu wax dëgg yàlla ñu ngi leen di ziar bu baax baax. jërëjëf yàlla nangu te barkeel. kontaan nañ ci waxtaan wi lool. jërëjëf jërëjëf. yal na yàlla guddal fan yu baax. amiin amiin amiin amiin amiin. ñu ngeen di waxtaan neex na loolu wax dëgg yàlla. jërëjëf yal yàlla barkeel lépp. amiin yaa rabbal aalamiin amiin. jërëjëf yàlla barkeel. amiin amiin ah, jërëjëf jërëjëf. noo ngi nuyu Xadim Serigne Xadim fa tabarakallah Babacar lay nu ngi leen di nuyu di leen siyaara bismillah ki si yoon bi mhm. di fàttali ñëpp site bi mooy wadduha point org soo ko defee rek bépp information boo bëgg a xam si Mara Cissé da nga ko xam wala même boo defee Mara Cissé dina la génneel site bi boo duggee Google boo defee Mara Cissé da nga mën a am site bi nga xam ne lépp loo xam ne itteewoo ngeen ko si ay information si Mara Cissé wala si daara ja da ngeen ko fa fekk si mbaaxu borom bi si ay son yoo xam ne dangeen koy mën a wétali ko wala it yeneen information yoo xam ne dina leen itteel 33 889 83 31 wala 32 seen émission Wadduha tey nu fi wétali ko sëñ Cheikh Ndiaye fi tabarak la waaye sunu rakk it si Ahmed Tidiane dinañ wétali bismillah asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. yàlla nangu tabarkel. Omar Seck la. Ah, Omar Seck eh, macha allah tey kii bi bàyyi na la fi. waaw tey <laughs> ah, <laughs> yenn loolu yiw la yal na yàlla barkel la. amiin yaa rabbal Omar Seck premier auditeur. <laughs> Eh, eh. bàyyi na nga am jàmm rek. nu ngi sant bu baax Seck. déglu nañu waxtaan wi wax dëgg yàlla am na solo lool. jërëjëf yal na yàlla. di di ñaanal sëñ Cheikh moomu noonu yàlla yàggal ko fi te wér. amiin amiin amiin amiin yàlla boole leen yàgg leen fi te wér. amiin amiin amiin yàlla may leen fan gudd ak wér gu yaram. Mhm, mhm. barke yonent bi. amiin amiin amiin amiin. Euh, tey damay ñëw ci kii euh, soratul mulk. waa soratul mulk. Euh, dama bëgg ngeen ba ngeen baaxee ñu ci waxtaan. baax na incha allah baax na maa ngi koy noté. waaw baax na baax na. ku koy ku koy faral di naafila. wala ku ko taamu di jàng daal. baax na incha allah baax na. incha allah rabbi. baax na incha allah. baax na jërëjëf. baax na jërëjëf sëñ Seck yal na yàlla barkel la. yàlla def la mag macha allah saa yu duggee rek daana am yóbbal boo xam ne dina koy. joxe si ñi nga xam ne seeni at limogul lool. Eh, fi tabaarakala sunu wëllëre di Mansour Cissé bu Mboro eh, sëñ Mansour Cissé nu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaare di koy ñaanal jot nan message bi yàlla def ko mag yàlla yokk ko barke mooy ki fi bàyyoon taalif bi. Eh, nu ngi koy ndokkeel lu bari 33 889 83 31 wala 32. Eh, seen émission Wadduha si radio municipal de Dakar 95.5 tay fa tabarakalaa no fi wetalikoog Cheikh Hayni di Cheikh Ahmed Tidiane Gadiaga ak sëñ Cheikh Ndiaye fa tabarakalaa no ngi leni di lu bari sen Cheikh amul message ba bëgg a jàllale waat Cheikh Ndiaye. mm Mm-hmm. bu amee ku ne si yoon bi rek ñu jël ko bisimilah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatuhu. yaa seexal kabir waa keñ amin uqadikum bi tahiyatil islam wa aqulu salaamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah wa mi sama sëriñ daaw dongom fi xariyati baanim séréer ndeysaan gom sama sëriñ boobu laa soxla woon muy sëriñ Cheikh Ndiaye ndeysaan ndeysaan mi ngi lay dégg waaw <laughs> sëñ Cheikh. ah waay sama sëriñ bu tedd bi nag. ah waay waay Cheikh in wee in wee siyaare ango. in wee siyaare ango paax. jox ah, ah, ko mbaas nu waa xaqal xaalimul xayb wa saadatu rahmaanu rahim. amiin amiin di leen ñaanal seen bi. Mm-hmm. yàlla na ko yàlla barkeel. amiin amiin xam-xam bi ngeen ko defee. amiin rek tax. wallaay ndeysaan wallaay. kooku kooku nekk foofu. Mm-hmm. sama mag la. ndeysaan. sama sëriñ la. am nga mag ju baax. sama wala li mbokkum lislaam la. wallaay ndeysaan wallaay dëgg la. Mm-hmm. noo ngi ñaan ci borom bi tabaaraka taala ak ñi nga àndal émission bi ak rajo bi. ak directeur rajo bi. yàlla na saa borom barkeel. amiin amiin amiin amiin amiin amiin ma amruhu isa arada shay'an an yaqoola lahu kun fa yakun wallaay wallaay wallaay amiin bi yadihi malakootu kulli shay'in wa ilayhi turja'un amiin amiin amiin amiin waaw am naa ku woote léegi ci waaxeat ñu bëggoon ko ci laa biire bokk jullit yi incha allah bismillah alal karim bismillah waaw kay léegi Cheikh in way ngeɗanango gudd fan gu ànd ak wér jaamu yàlla gu ñu nangu amin amin amin sëriñ Tuubaa nee na mhm. fu jàmm ne jaamu yàlla nekkul dafa jëkk waaye dafa mujj mhm. yàlla nu yàlla defal xibaata nan maqaboola tan bi ismi rabbil alamin amin amin amin jërëjëf si Njaay wallaay ndeysaan ngom ngom jërëjëf ngom dëgg bi am na solo eh, jërëjëf eh, ngom kooka mhm. eh, mu baaneem baaneem ci boo fay dem nag mu ngi ci comité rural ba Ngoy. Mhm, Ngoy département Bambey. ah ndeysaan ndeysaan macha allah. mu waaye. waaw ah, bëri na bëri na ñu ni jokkal nu dëkk côté boobu. bu baax a eh, ndeysaan ndeysaan. ndeysaan nuyu soxnaam ñoom in Fatou Ngom ñoom. wallaay wallaay maam Diarra ñoom. ak mhm, Ami mhm. Ndiaye ñoom ak waa dëkk fa yëpp. wallaay ndeysaan wallaay ak Papa Ngom sama doom Modou Ngom. ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu. waa dëkk fa yëpp ndeysaan ndeysaan ndeysaan ñu koy jaajëfal lu baax. ma ne ko loolu ni mu def am na solo sama 33 889 83 31 wala 889 83 32 émission Wadduha Radio radio municipal de Dakar 95.5. Faut fa tabarak la fàttali ñu ñëpp ne émission bi da ngeen di am rediffusion bi si mbaaxu yalla da ngeen koy am aljuma 2 heures du matin. wante dangeen koy am dimanche minuit bisimilah ki si bi. waaw ah, waaleykum salaam wa rahmatullah. Ah, bisimilah. Ah. wàññi rajo bi. nu ngi sant yaram. alhamdulilah. mbay mbay mbay Mbaye. Birane. alhamdulilah Mbaye. jërëjëf mbay yal yàlla nangu tabarkeel. di rafetlu émission bi. jërëjëf Mbaye. man li doon déglu ci rajo bële waaye le 14 février bi laa la jot jot. wala le 14 février. waa 14 février waaw. ci laa la commencé waat jot ndax dama rajo ba laa doon déglu di déggatuma la. ah dëgg la ndeysaan. waaw ndeysaan dëgg la dëgg la dëgg la. ngeen ziare rek. wallaay dimanche bu nekk incha allah dinaa nekk foofu si 100 point 8. waaw waaw. Ah, ah. baax na baax na jërëjëf jërëjëf yàlla barkeel. yàlla barkeel jërëjëf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf yan yàlla barkeel ko 33 889 83 31 wala 32 bismillah waaw bismillah Mouhamed Diop nu ngi koy nuyu sama goro bismillah allo waaw bismillah yaram waaw ne ñu leen ziar bu baax yan yàlla nangu tabarkeel ñu jërëjëf mhm. barakallah sànq si dafa lu ma doon teewlu mu raw ma ci daam hmm? lu ma doon teewlu sànq mu raw ma waaw waaw si kii bi li doon wax si set fatiha yeeg kii bi baax na dinaa si ñëw léegi notti naa ko incha allah baax na ak ak soortu mulki bi baax na incha allah baax na yàlla yàlla barkeel 33 eh, 889 83 31 bisimilah. amul ku ne si yoon bi Cheikh Ahmed Tidiane bu. Mhm. xanaa di <coughs> dem ba rek di nuyu suñu mbokk yi. Mhm. sëriñ Aliou Touré. Mhm. Maam Góor Cissé. Euh, di nuyu tamit soxna Xadi. Mhm. mais ko euh, soxna Xadi nga war na jox nuyoo bi. Ah, mu ma jottalil ma leen ko waa ba tey. <laughs> di nuyu sëñ Babacar kër eh, eh. euh, sëñ Moussa Diouf. Mm, sëñ Fallou Ka Diouf waaw ñu eh, leen di nuyu di leen ziar baax a baax. wallaay wallaay alhamdulilah. xanaa dañuy laaj Baye Cheikh rek mu laaj biir ñu tuuti ci wàllu xanaa. doylu alxanaa ah, kan sunu laay yàlla. <laughs> xanaa rek bu ma gërëmaatee El Hadj Modou Cissé. ñu gën koo xam ci Mara. Mm-hmm. walaay ki woote léegi ku baax a baax la. Serigne Daouda Ngom ndeysaan ndeysaan ñun ñëpp ñoo bokk dëkk Njaareem. ndeysaan ndeysaan loolu mbégte la eh, di ku yàlla baaxee moom itam. Eh, bisimilah ki si yoon bi. Mm-hmm. Mm-hmm. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Oustaz Alioune Diagne. Eh, Oustaz Alioune Diagne bu Mbour. waaw waaw bu fàttee Diagne fàtte. <laughs> Eh, ndeysaan bég naa lool Diagne. <laughs> yàlla yàlla barkeel. jërëjëf Diagne. yàlla yàlla dolli yiw. amiin Diagne amiin Diagne. li ngay wax day xam naa ni waroon nañu ko déglu déggaat ko segg ka bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf Diagne. bépp nit koo xam ne ci mu ngay jëriñoo mu ngay wax jëriñul Fatiha. Mm-hmm. man yéen a ngi nit ñi aljana yéen a leen jub ci aljana yéen a ngi leen baax. wallaay wallaay Diagne wallaay. yàlla na am na baax yow mi ko tàmbali. amiin amiin Diagne. barke Seydina Muhammad waaye li nga wax ci ci bésub juddu gune. Mm-hmm. ku ko def doo am ko lafañ doo am ko bët doo am ko laaj doo am ko kuy soox. wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi Diagne. bu la yàlla bu la yàlla xiiree nag di nga bind Faatiha adadu uruuf yi. Mm-hmm. lépp loo cee def rek yàlla nangu bu neexee yàlla yàlla na yàlla barkeel. amiin amiin amiin xaddadu xurus yi. waaw adadu urufu fàccee yi. ñii ne nañu cent vingt quatre ñii ni cent vingt cinq. waaye daal boo ko bindee loo ko mën bindee jëmale ci kuy jublu kooka yàlla dana ko dana ko lafal cat. wallaay macha allah yal na yàlla fay la. yal na yàlla barkeel la jërëjëf yal na yàlla fay la. jërëjëf bég nañ lool Diagne jërëjëf. jërëjëf jërëjëf sëñ Alioune Oustaz Alioune Diagne. Eh, jërëjëf si jokko bi yàlla yàlla fay la. yàlla barkeli loolu nga fi wàccee fi la fatiha moom. Mhm. sëñ Cheikh. doy ma ne doylu boobu nga ma waxoon. Uh-huh. Eh, wax dëgg yàlla. su amee ku ne si yoon bi rek sëñ yoon mën nañ koo jëlaale si 33 889 83 31 wala 32. Uh-huh. sëñ Cheikh nga continuer dama foog ne doylu. Mm-hmm. ku ko am yaa ëppale si àdduna. lu wér lu wér ku doylu. Mm-hmm. yaa. pële ci àdduna mhm, mhm, mhm. waaye ku doyluwul du bari le mukk wallaay ndeysaan ndax lu mu am ma ngay xool leneen xool leneen lu wér lu wér lu wér lu wér lu mu am rek mu ngay xool leneen te xelam du dal ndax lu mu am leneen a nga ci kanam ndax yàlla du jeexal te àdduna yaatu na wallaay waaye nag ki doylu lu mu am rek doy na ko lu mu am daray kenn daray lenn terewu ko nelaw lu mu am daal mm-hmm. waaye ku doylu day gëm ku gëm yàlla lay doon foo ko fekk mm-hmm. Mm-hmm. ndax day xam ne yàllaay joxe Eh, day xamit ne yàllaay xañe mm-hmm, mm-hmm. kon ki doy lu moom xanaa Serigne Daouda Ngom ma fàttali ko dañ ma invité fii tey mm-hmm, eh, alaaji Modou Cissé Serigne Mara moom ma invité ci rajo RND fii tey dañ ma fee invité nekkuma koo xam ne dama fii liggéey dañ ma fee invité <laughs> na leer rajo tey dañ ma fee invité yàlla na yàlla barkeel waaye ku doylu <laughs> uh-huh. xam nga ne wax dëgg courage mu dëll waaye gis nga ku doylu mm-hmm. mooy silmaxa mm-hmm. mm-hmm. gorul yetul déet handicap sax laay wax ki uh-huh. si yoon bi bismillah bismillah dafa am si yoon bi bismillah waaleykum salaam wa Eh, sëñ abdoulahi mbeng <laughs> nu ngi lay nuyu bu baax di lay bégee <laughs> eh, numéro eh, tamit mu ngi nuyoo macha allah wallaay sëñ abdoulahi ñoo ngi cheikh ndiaye ah, waaw ak suñu sëriñ boobu wa cheikh ahmed tidiane ga jëgg macha allah kay rek waxtaan bi neex na wax dëgg yàlla jërëjëf sëñ abdoulahi neex na jërëjëf Mbengue. waaw dama doon dama doon laajte yaa ngi doon wax ci wala soo ko yokkee garab bu ko fa tardaa bi. koy def koy def saafara. saa ah, koy liggéey uh-huh, uh-huh. rek koy da nga koy waaw moom ngay moom ngay ubbi dugal si. tur baag sa tur ak sax aajo. Mhm, mhm. yan eh, yàlla barkel ko. émission bi yàlla barkeel lépp. lépp ñun rédivision yeeg lépp lépp man eh, Imaam Niang. wallaay wallaay. <laughs> mu ngi lay déglu mu ngi lay dégg nii. <laughs> man xam naa wallaay ndeysaan allah dama ko fonk lool macha allah. Ah, ndax dafa am macha allah dañu ko fonk. <laughs> wallaay dëgg la dëgg la dëgg la. mooy fonk doomu aadama. Eh, eh, eh, jërëjëf Mbengue yan yàlla barkeel la. yan yàlla barkeel la Mbengue. bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ Mara man la Mati Diop. Eh, Diop soxna Mati. ñu ngi leen nuyu ci ziyaara. jërëjëf yal na yàlla. barkel la ci émission allah. yàlla barkel la. Diop ngeen nuyu tamit ñi nga toogal yëpp ñoom mhm. Cheikh. ok Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. rahmatulah. waaw maa siit. sant bi. Dieye la siit. jey Dieye. jàmm ñoo woote woon mercredi bi passé bi nga invité. Eh, suñu Imam mohammed ñang dëgg la jey jey jàmm rek siit. alhamdulilah Dieye. dañ wat waat pour bo ñu jappalé wat ci crafil bi. ah si crafil waaw waaw. dang ko am crafil waaw dañ ko àjjuma incha allahu rabbi bu ñu xëyul dañ ko bëggoon ñëw fii fi nga expliqué woon Limaamu Laay baax na incha allah baax na. da nga bëgg karafil bi wala danga ko am bëgg ku la si tegtal dara. waaw dañ ko bëgg jënd. ah da nga ko bëgg waaw waaw baax na incha allah baax na incha baax na. ak invitation bi mbokk moomu nga invité wallaay wallaay wallaay ñaan yàlla bàkkam boobu yàlla na si yàlla dugal loxoom amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin ngay ñaan yàlla seen jàmm yàgg amin amin amin aja bu baax suñu imaam ñang wallaay ndeysaan wallaay wallaay ku baax jërëjëf jërëjëf yàlla yàlla barkel la bismillah waaleykum salaam wa rahmatullah wàññil tuuti rajo bi nga baal ma. nu ngi sant nu ngi sant. Eh, baax baax sëñ Mouhamed. émission eh, eh, waaw dëgg la baax baax. dëgg la baax. ma ne naa barkeelu ba bokkuloon si ñu amoon si xéwalu Carafil bi. rafetlu bi waa amoon nañ. Eh, yàlla barkeel ko. ci na yàlla barkeel ko ba. ci ci loolu wallaay wallaay. wallaay ko. loolu li ci wax rek am na lu ñu allah. wax fexe tamit ànd ci di yàlla. ñëpp mucc ñëpp yokk si mbaaxu yàlla. kanam mhm. li ci nekk li ci nekk dafay defar lu bëri. Mhm, mhm, dafay def day yu bëri. man mi ko am moom xam naa ci dara. alxuraan ne wa maa shahidnaa illaa bimaa. wallaahi wallaahi ndeysaan wallaahi wallaahi. ak rasul bi maa ngi ñaan sama baax a a baax. wallaahi jërëjëf jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. yàlla bàyyi la fi guddal jërëjëf jërëjëf. jërëjëf yal na yàlla barkeel la baax. karaaf yi karaaf jërëjëf yal na yàlla barkeel la jërëjëf Mouhamed Ba. jërëjëf mbokk yi fii jaar Cheikh xam na bu alhaji ala yun amé lu yëkëti nga ñëw tuuti ci pharmacie doha tankal tuuti rek mbokk yi la fa nekk na waxtu bi mu ngi avancé نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك خيوال ديكتنا جوكتي على جمود سيزة نيريغو أحمارا سيزة ميلين أندلون كارافيل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

ëpp na njëgëm juróomi junni ngir faj sa mbir waduha yàlla moo ci giñ yor yor la léppay leer alaaji mamadou si cissé maara waa góor allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina muhammad ya man di fàttali mbokk yi rek lenn ci pharmacie Wadduha eh, lu ci mel ni kitaabu Wadduha nga xam ne mu ngi nekk livre boo xam ne mu ngi amul trois cent treize pages lépp nekk ay njariñ ci <coughs> moo xam ci wàllu ay nawaafil la wala ay zikkar wala ci wàllu làpp walla lépp loo xam ne luy jariñ nit ki la ci lum soxla ñaan ci wàllu yokkuteem wala saafara ci wàllu yaramam lépp rek bu amee livre boobu incha allah dana ko fekk ci biir naka noonu itam li ci ëpp loo xam ne doon danañ koy waxtaanee ci émission Wadduha yëpp bu demee incha allah dana fekk ñu tënk ko foofu mu nekk livre bu am solo euh, ñu koy wecc ko vingt cinq mille francs ba léegi am na ci pharmacie bi fa tabarakallahu loo xam ne pour dindi liggéey bu nekk ci yaramu doomu aadama la ñu koy wax tojtal moom it di kayfiyaat bu am am am solo moom it ñu koy wecc ko vingt cinq mille loo xam ne ku ko jëfandikoo ci kàttu yàlla lu mu fekk sa yaram te nekkul lu ci bokkul ci mbaaxu yàlla yàlla mën na ko rocc ba mu set wecc naka noonu itam euh, lu ci mel ni faxastat waaw la sang ba waxoon rek alaa inu xaqun cat lu am la te bu duggee ci doomu aadama daf koy yàqal gàllankoor ko lu bëri bëri bëri euh, da nga faral di dégg lu bëri nit naan lu ma lu may lijjanti ba sonn waaye lu ma lijjant du mën a sotti lu ma dugg daal pour ma jot buñ ma ko diggoon ba ma yaakaar ni te ko tee naa ko sax dootuma ko mën a tee te loolu yëpp boroom xam-xam yi ñuy gëstu rafet gis nañ ne cat dana def loolu moo tax it ci pharmacie Wadduha alxaaj Modou Cissé andil leen ci kayfiyaat bu am solo bu ñuy wax faxas cat moom it ñu koy wecc koo quinze mille francs naka noonu itam ci pharmacie bi euh, jigéen goo xam ne dafa am wann lor jigéenu wérul moom it xam ngeen nit tamit jigéen bu tollee foofu li li koy soxla ci yàqal ko day bëri ci mu xam ko wala mu ñàkk koo xam comme it kon jigéen ju wérul tamit am na tamit kayfiyaat moom it bu am solo buñ ko defal boo xam ne bu ko jëfandikoo yàlla mën na koo sàmm sàmm la mu ëmb incha allah moom it ñu koy wecc ko 4500 ba léegi itam am na ci pharmacie bi kiis pour dimbale xale bi wala moo xam xale wala mag képp koo xam ne sa xel daal xaw na kii ci wàllu na waroon a neexee neexee woo ko boo amee kiis boobu yàlla mën na la ci <clears throat> ubbi sa xel ba loo bëgg a mokkal da nga ko mën a mokkal incha allah moom ñu koy wecc ko 4500 ba léegi tamit am na ci pharmacie bi protection pour xale yu jigéen yi euh, alxaaj moo di ko di di ko tuddee ndimbalu jaboot gàllaaju jaboot euh, képp koo xam ne am na ko dana dimbale xale bi ba li ñuy wax njaaloo yàlla mën na ko ci musal ba wala bokk ku ko bëggoon a forcé mën naa bañaantu ci kàttun yàlla moom it ñu koy wecc ko quatre mille cinq cent tabaarakallaahu am na tamit ci pharmacie bi cuuraay seytaane cuuraay boo xam ne euh, ni ñu ko composé moo xam ci wàllu liggéey la wala wàllu seytaane wala ko képp ko xam ne rek yaramam faral na di diis ci kàttu yàlla bu koy suuroo euh, dana yëg ak woyof ci yaramam bu dee rawatina bu dee wàllu si nelaw guddi jafe na jafe na ko waaw wala am lu koy yàqal nelaw yoo xam ne yu si ëpp waaw kër goo xam ne mhm, mhm. waaw yooyu yëpp da ci da ci da ci liggéeyal naan liggéeyal nañ ko ci biir moom mbiri seytaane daal moo ko tax a jóg fa tabaarakallaa ñu koy wecc ko euh, cinq cent francs ñaar yi di mille francs mhm. euh, gàllaaju oto tamit moom it am na ci pharmacie bi am na ci pharmacie bi ndax yoon yi euh, tamit dafa am ñeneen ñu ko occupé ñu dul nit ñi gis moom it kon tamit day day day aar tamit day day baax tamit ñu leen ñuy wut loo xam ne danañ ko mën a aaru ci oto yi moom it ñu koy wecc ko quatre mille cinq cent gàllaaju kër moom it am na ko comme niñ ko doon waxee léegi ñu mhm. ko Baye Cheikh doon waxee kër mhm. mag ñi dañ dañ ko daan aar. Mm-hmm. Mm-hmm. ni ñu daan aaree njaboot noonu lañuy ñuy aaree dëkkuwaay. Mm-hmm. ba lépp loo xam ne lu fa nekk la di yàqu. dootu fa mën a am doole pour yàq. moom it gàllaaju kër ñu koy wecc ko sept mille francs. yooyu daal. kuy tooyal lal waaw kuy tooyal lal. boobu it am na ci pharmacie bi. <laughs> waaw moo xam mag la wala xale. waaw moo xam mag la wala xale waaw. kooku tamit am na ci pharmacie moo bi ñu koy wécc ko 7000 francs mhm. Mhm. nga fàttali wala leen barab yi ñu ko mën a amee loo yee nga wax yépp nag ñu fàttali ñëpp. Mhm. su ne ku koy teew rek amul looy ñëw di toog di rang amul looy jënd tikke. bu dee géejawaay moo la gën a jege. ñu dëkkee parcelle géejawaay ak yëpp mën nañoo ñëw sa daara ja di buntu lycée maam Limaamu Laay bu géejawaay. sunu fu ñëwee dinañ ko mën a am. fa la wala nu. numéro Wadduha mooy 77. 617 70 44. bu fekkee ñi dëkkee biir Dakar bu ñu demee point 1 mën nañ koy am. Mhm. Mm, mën nañ koy am si point 1 fa tabarakallah bu nu jaaree si 70 922 23 75. ñi nga xam ne bii nu ngi dëkkee boori Tëngéej Mbaaw. Kër Mbay Fall côté yooyu yëpp sunu demee si Adja Aram soxna Aram Ndiaye e, danañ ko fay man a am si 77 262 36 28 moom it macha allah sunu goro boobu di Mouhamed nekk si route nationale bi si face SDE bi moom it macha allah ku fa dem da ko fa mën a am si yi si Ahmed Tidiane doon tudd yëpp. Euh, fa tabarakalaa ku jokkoog soxna aram si 77 262 36 28 fa tabarakalaa dina lay gindi ñi nga xam ne bi it ñu ngi dëkkee boori mbuur ñi dëkkee côté yooyu yëpp nu jokkoo ak ñun dina lañ jox daaray Wadduha bi nekk mbuur si madam ñaa di soxna kumba fa tabarakalaa sunu jokkoo ak ñun dina leen jox euh, euh, fu nu ko mën a jotee di mu dëkkee si Sali Carrefour di siyaare bu baax tamit daaray Wadduha bi nekk foofu sëñ Cheikh. Eh, dafa mbokk yu baax ñu nekk mbuur ñoo xam ne dañoo ubbi woon daara tuddee ko Wadduha eh, macha allah nga ñaanalal ma leen bu baax daara jooju yàlla yokk fa barke. Eh, Wadduha de moom. dafa ñaanal boppam waaye ki composé tur yi dafa ñaanal boppam. Mm-hmm, waaye mm-hmm. daa fekk ñaan gu nangu. Mm-hmm. kon foog rek ñaan gi day dal nangu ndax koo xam ne. dangaa fekk say maam ci alxuraan. Mm-hmm. ñu ñëpp xam leen ci alxuraan ñuy jàppale nit ñi. Mm-hmm. Eh, say waajur yi tamit ñu yàlla def ñoom it ñu xam leen ci loolu ñuy jàppale nit ñi. Mm-hmm. kon nag yow boo jàppalee nit ñi ku la xam dëgg-dëgg loolu du ko bett. waaye kon nag ñi ànd ak yow itamit noonu rek la mën a def. kon nag jàppale doomu aadama moom. Eh, nekk na loo xam ne jaamu yàlla la. kii feebar kii jaaxle kii ñàkk foo ko fette bu xelam dal eh, loolu jaamu yàlla la kon nag yal na leen yàlla jàppale amin amin amin yàlla yombal jafe-jafe yëpp amin njaay yàlla itamit gën a barkeel eh, mbind mi amin amin ak sikar si barkeel loxo bi ak loo yëkkati jox bismillah allo salaamaaleykum ma Mara. waaw sëñ Abibou. waaw jërëjëf. di mm. ziar. jërëjëf Mbaye. waaw man cuuraay boobu de laay laay laay wax rek. Mm-hmm. wala ko fàtte woon naa keroog de yàlla xam ne bi ma ko suuroo dama bindati. Eh, ndeysaan mbay dama nelaw ba biddanti laa la wax mbay mbaa da nga amoon xarit yu sant samb ah, waaw sëriñ sambe sax foofu la samba la ñu sant eh. ñoom ñëpp ñoom ñëpp jox naa leen si kelip bi ndeysaan mbay yal na yàlla barke lépp dama leen tëg seen daale ñoom ñëpp yal na yàlla barke lépp mais daal tuuraay macha allah am na solo eh, jërëjëf mbay waaw maa ngi nuyu yaa aram njaay rek sama yaay wallaay mu ngi lay fay si sama kaddu moom it dama ko doon nuyu mu ngi mu ngi may jottali nuyoo yi ngay nuyoo yëpp ak li nga koy nemmi ko loolu bég nañ si. mat na yaay macha allah. yal na yàlla yokk guddal fanam. billahi man yàlla yokk wéral cëram. man lu baax rek rek rek rek mooy itte macha allah. yàlla xam ne nit daf may woo ne ma waxtaan bi ma waxtaan ak moom rek macha allah sama xel dafa dal. te loolu rek lu jar a sant la. wallaahi man te eh, xel yi léegi danoo feebar. <laughs> <laughs> ma ne ku may tax day baax lool nit koo xam ne day dal. nit koo xam ne bii boo jokkoo ak moom rek macha allah. Mhm. mën a fàtte waaw mën a fàtte lu bëri. waaw moom moom billaay man de fi ma ko dégloo rek su ma ma ko waxee sama xol sedda wallaay wallaay wallaay may encouragé si diine daal ma moytuloo yu bëri loolu rek loolu rek jar na sant yàlla wallaay wallaay wallaay alaaji Modou alaaji Modou moom moom tamit manqué di wallaay yal na yàlla def ko mag Modou Gueye yal na yàlla def ko mag wallaay wallaay wallaay mais dafa am lu ma la bëggoon a laaj mhm. si siiwal FM laa ko dégloo woon mhm. mooy benn ki boo defoon ay fatakum fatalakum kat boobu. <laughs> marajun marajun maraj. ak eh, macha allah yow yàgg ngaa déglu Wadduha. ah yow kay macha allah. waaw loolu moom <laughs> nga loolu bég naa si. ma koy ah loolu bég naa si macha allah. nag après nga sànni ma baax na dinañ ko dinañ si ñëw léegi dinañ si ñëw léegi yéen ñëpp jàmm rek moo tax macha allah. waaw nu waxoon ko muy loo xam ne bi macha allah day baax lool si koo xam ne. Mhm. day faral di génn ndax mbir la moo xam ne soo ko waxee. Mhm. donte woon ni dafa yëkkati woon gànnaay jéeg jëm si la dana am lu dox sa diggante ak moom. dëgg la te loolu du lu ndaw macha allah. <laughs> dina si ñëw comme noonu rek boo gisee loo ragal rek jay koy jàng si sa xel. Hmm. waaw incha allah waaw yàlla bu yéeneem nekkee leneen du dana am lu dox sa digganteeg moom. Ah, ah, ndax ni ma noonu la. wallaay noonu nga noonu la noonu nga ko waxee noonu la dinaa ko may ñëpp sax ba la may jaaxal. incha allah jërëjëf ah sëñ Habib macha allah dégg nañ. jërëjëf <laughs> sëñ Habib Mbaye. Eh, bi nekk Juwaala. waaw ak ñi nekk Tëngéej. Mm-hmm. waa Wokam. Mm-hmm. waa Mbour. Mm-hmm. ñu la fa nekkal sa soppe yooyu. Mm-hmm. yal na leen yàlla jàppale jàppale la. wallaay wallaay. yal na yàlla gën a barkeel. barkeel la nag ndax it wax dëgg yàlla. <laughs> fu nekk nga am fa station yombul. waaw. <laughs> te tamit yàlla defal na la ko. wallaay wallaay wallaay kon nag lu barkeel rek a am solo. wallaay yàlla gën a barkeel amiin amiin Ndiaye ah, xanaa daal. Eh, jotalal nga ma nga gën maa jotalal sama lii nga xam ne mooy sama njàmbat. wallaay jottaliwaat ko ñëpp wóor na ma ne di ko jotal. <laughs> jottaliwaat ko ñëpp waaye daal. ah silmaxala. wallaay ndeysaan di borom njaboot. Mm-hmm. may nañ ma fàkk. Mm-hmm. daa waran amal ma fa def te fañ ko def fañ ma ko jox kat. Mm-hmm. am na ñeneen ñu ko bëgg. jullit yàlla yépp ngi lay déglu. te xam naa ne ah, am na nun bu ñu demee rek. dana saafara si barke Doxa. alhamdulilah <laughs> dana saafara si barke Doxa sëñ Cheikh. Ah, kon képp kuy soppee Doxa rek. Mhm. macha allah noo ko déggandoo. si mbaax yàlla noo ko déggandoo. na ngi ñaan ñëpp nu jàmm yàlla si loolu. Eh, alxaaj yàlla yoon dafa am ku si yoon. Cheikh na Tidiane. sëñ Cheikh mën nga continuer sëñ Cheikh Ndiaye. waaw waaw mhm. mhm. ndax eh. macha allah bu yàlla defee nga yor. ay soxna. Mm-hmm. yor ay njaboot. Mm-hmm. ma ne ko dëkkuwaay macha allah de ah. priorité. ma ne ko xam nga ne. Mm-hmm. lu daan jar téeméer ren. bu dee ne mu jar juróom fukk eh, téeméer ak juróom fukk. addunaay eh, dox. xam nga boo seetloo ne barigo dërëm amoon na fi te daan jariñ. ah kon nag xam nga ne bu dévaluation amee nag. wax dëgg yàlla addunaay dox rek. wallaay wallaay addunaay dox du tee du tee nit ñee dund. <laughs> <laughs> waaye nag dañu bëgg nag. Eh, billet xam nga fa ñu nekkoon dootuñu li néegu ñax amoon na amatul. Mhm, mhm, mhm. baraag amoon na amatul. léegi tabax lal yi fi nekkoon ak lal yi léegi bokkul. wallaay ndeysaan xam naa am na eh, xale yi xale yi xamuñu lalu. tànn daanaa dégg nu ne macha allah diggante eh, dakaar rek Touba. la fi newoon si oto transport. toll nay jamono ëppul loon ñett. ñoom ko lalu tagar. <laughs> xale yi moom xam ne ñoo dem ba di ko xam. lalu tagar. nga xam ne ay bant bant xoos lay doon. la est ñu jël e, deru nag. Mhm. seel ko. est-ce que. rabate ko ko. Uh-huh. teg noonu. Mhm. wallaay bu la neexee sax lem ko te am lal bu foor la daan doon ñu di si tëdd wallaay wallaay àddunay dox àddunay dox àddunay dox kon nag mm-hmm. e, nga xam ne e, lu am ren e, luy jar ren téeméer mm-hmm. bu demee ne mën naa jar jar lu ëpp loola mm-hmm, kon nag daal li ma bëgg a wax mooy ah man daal yal na yàlla dooli jàmm amin amin Ndiaye adduna bi ñu ngi wax naqari na waaye yàlla nañu dund rek te fekke tal wallaay ndeysaan wallaay te ñu bañ a sikkante ci suñu biir mhm. waaye lu ci waay mën mhm. te mu war la sa digganteeg nit ñi na nga ko def wallaay wallaay wallaay muy ilimaani jàkka jàkk ku féete ca nguur gaak mhm. boo defee li nga mën li nga war a def yëpp li ci des nag ñu teg ko ci loxol yàlla. wallaay jalla jalaalu nañu yéeneente jàmm kenn ku ne fa nga féete ci la nga war def yal na la yàlla jàppale. Mm-hmm, mm-hmm. jàppale réew mi nag. Mm-hmm, réew mi yàlla ci yàlla dolli jàmm. bu ñu xeeb nag jàmm ji ñu yàlla defal. nañ ko nañ ko nañ ko jàpp di ko ñaan te yéen yi nga xam ne jege ngeen seen borom te mii na ñaan. bu leen noppi di ñaan dee leen ñaan ndax jàmm du doy. jàmm du doy. dee leen ñaan. jàmm du waaye wóor na yàlla ak yonent bi te lu dul jàmm jàmm. ko boo dégloo rajo yi di xool télé yi. Uh-huh. nga xam ne àdduna ñeena Sénégal. wallaay ndeysaan dëgg la am na sutura kon nag jàmm <laughs> yàlla bu mu yàqu. wallaay ndeysaan. waaye nag buñ ko xeeb waaye yàlla bu mu yàqu. amiin nañ ko téye bu mu baax ba jàmm gën fee sax. Uh-huh. ni ko mag ñi xalaate woon yéen ko fi mm-hmm. ba jik ko ci xolu doom aadama yi ba mu di fi màgg di màgg di màgg ñu di ko jilante mm-hmm. muy gën di sax mm-hmm. loolu yàlla na ci yàlla gën a jàpp yàlla bu yàlla tas yaakaaru sénégalais ak mboolem fu nit nekk rek ndax nit ñëpp ay mbokk lañu waaye nag bu la yàlla jox dara ba pare nga yàq ko kon nag bu yàq sunu senegal gi suñuy dooma fii ne dañuy juri suñuy sët yàlla na ci yàlla jàpp. amiin amiin damay ñaan kat waaye njàqare amu fi jàmm rek. affaire wallaay ndeysaan wallaay waaye nag. Mhm. ñun bu ñu nee ñun ñooy waaye yàlla fu ñu toog. Mhm. te xam ne ñaar ak ñett dañ ñu fay dëgg daañu ñaan. wallaay ndeysaan moo tax may ñaan waaye jàmm a ngi Sénégal. wallaay dañu bëgg nag yàlla dolli ko yàlla na sax te yokk. waaye nag ñun ñëpp ñu sabablu ko. Mhm, ñu sabablu ko waaye. yàlla jox nañu jàmm yàlla ci yàlla gën a jàmm. amiin nag. ku yëg ak da ngeen di ñaan. Mm-hmm, mm-hmm. ñaan ko ci ñuy ñëw di leen di seeni soxla. Mm-hmm. ñaan ko it ndax réew mi eh, kenn ëpp leen ci. kenn ëpplewu leen ci. da ngeen cee dëkk. kon nag te wutu leen ci réew mi eh, toll na béréb sàngam. dama ciy ñaan waaye bala ma cee ñaankat ñu xàmmi ma. da di ñaan rek te yàlla tax xam ne da ngeen bokk ci réew mi am. ci cër kon yàlla na leen yàlla jàppale. Eh, sa banqaas yi nga am ci mbuur ak juwaalo ak tëngéej ndar ak foo am bànqaas rek yàlla na gën a law. amiin amiin Ndiaye ak yi nga am nag bitim réew. amiin amiin Ndiaye ak yi nga am boori Maroc ak. amiin amiin États-Unis fu mu mën di doon. amiin amiin eh, yëpp fu ci ne am nga fay bànqaas. amiin Ndiaye. Eh, eh, lu du dëgg du yàgg. wallaay waaw lu du dëgg tamit lawtanam du sori de. la dëgg balaa sori ñu dagg ko. dëgg Ndiaye. kon nag yàlla na ci yàlla gën a jàpp. amiin amiin Ndiaye. bi yàlla na gën a jëm kanam. ndax nag. ku la xam-xam ne dangaa doon xam-xam foraatuwoo ko ci maam ba ciy bàyyi te ku wedd nag demal njaareem boo demee góor gi àll siise ah? boo ko laajtee ci booru école noof jëm carte Serigne Cheikh Kanji jëm Grand Diourbel wallaay wallaay dem ndaayaan dem Grand eh, Diourbel ci boppam uhuh, uhuh. dem bu daay dem ci millier dëkk ba uhuh. dem seeseen foofa réere wuñ ko waaye réere wuñ ko mbayaar ga mu dëkk sax. wallaay ndeysaan kon nag boo dee meññee fam. Mm-hmm, mm-hmm. ah lii ngay def boo ko def woon jaaxal nii. Mm-hmm, kon ñu ne mujjee nga pousse bu pousse bi. mu réer. Mhm. waaye ñu ngi gërëm yàlla njéem mujj woo ko mu réer. wallaay Ndiaye ñu lay sant bu baax. jërëjëf Ndiaye. nag yàlla na yàlla gën a barkeel la. amiin amiin def fekk ak tal. Ndiaye. sa rakk ju baax ji nag. Mhm. nga xam ne ni ne ko man Mansour daan waxee. Mhm. sa rakk ju sës ci yow la rek. tërëku la te sax dégg naa ko ci sa kàddu nag <laughs> kon nag yàlla na yàlla dolli ànd bi amiin amiin mbokk bi daal yàlla na ko yàlla gën a ndax ak mbokk la goo xam ne yàllaa ko def dëgg la la eh, ak mbokk yàlla koy def dëgg la yàllaa koy def eh, xam naa ne mbokk yi nag yàlla buñ ma jëf waaye lii dama ko mën a ñàkk wax sëriñ bi waaye yaaram yàlla nagu tabarkeel sëriñ daaw nangu jërëjëf moo del si man a sëñ daaw dongum baaneem séeréer ndeysaan du moom sëriñ sax waaye taal boo xam ne sëñ Tuubaa rek laa ndeysaan a wax bëggoon sëriñ boobu di wax ak sama mag ji waaw waaw ah, collaboration boo xam ne dina dinaa mën a def ak moom incha allah nangu daal maa ngi ñaan nangul naa la koy di ñaan yàlla barkeel ko nag ma ko joxal sama mag ji incha allah nga xam ne comme ni ma ko waxe mm-hmm. loolu moo ne ci sama xol. nangul naa la ko tey ñaan yàlla barkeel ko am na am na fare. <laughs> walaay ndeysaan yàlla bu nu yàlla defal loolu. Mm-hmm. téere boobu nga wax nii. Mm-hmm. Eh, su dee société. Mm-hmm. bëgg naa cee bokk su dee daayira. bëgg naa cee bokk. incha allah incha allah ngam incha allah. Wadduha gëstu nañu ci lu bari loo xam ne lii. mat na émission. macha ndeysaan ngam. nag day bëgg naa daal. collaboration boo xam ne incha allah nangul naa la ko di ñaan it yàlla barkel ko. maak yow. incha allah nangul naa la ko di ñaan yàlla barkel ko. moom moom la suñu borom ne waa aw foo bil hadi. inal hada kaana mas'uula. kon kooku naa rek ma teg ko sa loxo ko ci loxol baax na baax na baax na. sama mag la. sama xarit la. Mhm. sama wolore la. wallaay mbokkum lislaam la. macha allah ndeysaan lislaam na moo gën a am doole. wallaay lu wér moom mi noonu exwa wallaay ndeysaan wallaay am na couleur ndax we weñu ko kurus. Mhm. lu mu rafet ko. Mhm. am mu ne fa aslihoo bay na axaw. wallaay ndeysaan wallaay ngom ngom ngom rafet na rafet na macha allah. sama diggante moom maa ngi sàkku li wëj illaahi taalal karim. nga nga nga tegal ma ko ci loxoom bés boo ko tegee ci loxoom. incha allah direct la. baax na incha allah baax na baax na. baax na nangul na la ko tey ñaan yàlla barkeel koy inni asaluka imaanan daaima wa xalban xaasiyan mhm. wa xilman naafian wa yaqinan saadixan wa diinan xayiman mhm, mhm. asaluka daaima alxaafiyati wa asaluka tamaam alxaafiya amin amin amin asaluka shukran ala alaafiya amin amin asaluka la na ani naas ya rabbal alamin amin amin amin yaa rabbi maa ngi la koy ñaanal di ko ñaanal Cheikh di ko ñaanal Sénégal jërëjëf yal na yàlla nangu moom wax ne moom waa yàlla wallaay ndeysaan su ñaanee yàlla mën na koo may Sénégal nag jàmm a bi. wallaay ndeysaan lu nekk rek dañoo bëgg mu yokk wallaay wallaay dëgg la. dëgg la a baax. dëgg la. ndax li tax yonent bi ne alhilmu. laa himaadan. wallaay wal jahlu. lu yahdimu baytan isabal kam wallaay ndeysaan lu mu la ci mhm, mhm, mhm. kon loolu nag maa ngi koy bëgg daal mm, maa ak yow. ah macha allah. bëgg nañ lool ngoom si jokko bi. lépp a ngi ci ci loxol seex. incha allah. jëm si ci sa loxo. incha allah ngir yàlla ak yoon si yàlla Muhammad. baax na sallallahu alayhi wa sallam yi salloon ala nabi yaa ayyuhal lazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. jërëjëf barakallahu fiik. sëñ Cheikh. na ala. ilman naafiyan yaqinan saadiqan bi amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin amiin ah, yàlla def yow def ko ci mbooleem ak man sama jox ko sama wala allah loolu bu na am na bu far na sa xel dal <laughs> ndax moom xam naa fi ma teg te man maa la yaakaar yaakaaruma moom itamit am na fu ma teg te yaakaar maa ko yaakaar waaye yaakaaruma <laughs> am nag waaye ku ci rek bu ma la bu ma la nee rek na sa xel dal bu yeboo sa xel dal waaw mel ni kii. maa leen di coordonné ba ngeen <laughs> ba ngeen. incha allah macha allah ne bu nekk wëllëranteeg euh, borom xam-xamoon na si dàqal te macha allah. Hmm. ku dégg ni mu waxee xam ne. macha allah moom kay euh, kilifa la. Eh, déedéet. Euh, eh, eh. Hmm. ku ku aye moom. Mhm. si yow la war a wax. mel ni kii waxtu baa ngi si minute yu mujj wala jeex na sax moom lañ mën a wax xam naa suñu mhm. seex. nga fàttaliwaat àddina bi yëpp sa itte. Mhm. waaye tamit nga joxaale leen sa numéro téléphone. moom koo xam ne ku si bëgg jaamu yàlla rek bu sa jaaree dana jokkoo yow. moom daal yow mi nga xam ne da ngay def ndimbal ci lu dul loolu. Mhm. kuy joxe ci yow la koy jaare mhm. nañ la ko jox booyee boo jox leen seen numéro waaye man bu xam nga ne su ma toogee ci rajo wax lii. ah ñàkk fexe fexe lay doon. wallaay moom daal. borom njaboot la mm-hmm, mm-hmm. yàlla dénk may nañ ma pàkk mm-hmm. pàkk biñ ma may nag fiñ ma ko may wax dëgg yàlla borom wóor na wóor na kii di wax nii de xam na ci dara kii wax nii ak man xam na ci loolu may nañ ma ko te place bañ ma ko may nag ah ñu seen loxo jot seen ginnaaw rek koy yéer nag te comme pàkk yombul ma di leen ci yaakaar di leen ko diis di weeje sama bopp yaakaar leen ci. Mhm. bëgg ngeen jàppale ma ci lu ma fa defaree loo xamante nii daal. Mhm. dinaa fa mën a nekk ak mhm. sama njaboot. wax dëgg yàlla ak ci loolu daal. maa ngi lay ñaan nga jotalal ma ko say soppe. waaye maa ngi koy jotal mboolem ku ko dégg ku ko ku ko ku ko déggul itam te am ku la ko déggal. lii lu ma ñor la te kat damaa mënalul sama bopp. su ma mënaloon sama bopp xam nga ne. Eh, defal leen ma dimbale leen ma. Mm-hmm, mm-hmm. ah wax dëgg yàlla xam nga ne ku ko wax rek. Mm-hmm. kenn ku ne xam nga ne dangaa ngaa war di dimbalee. boo demee nag ba mënatoo dimbale di sàkku ndimbal. da ngaa xam ne moo fa sës. waaye kuy dund ku ne. da ngaa ñaanoon yàlla mën a mën a mën sa bopp ba mën a dimbalee. kon nag boo toogee ba damaa bëgg ku ma dimbale te amoo ci kersa. ah dégg sa loxo daa jotul sa ginnaaw. wallaay wallaay Ndiaye kon maa ngi koy wax di ko waxaat di leen ko fàttali di tàllal ñëpp loxo bàyyi ma ngi lay dégg si barke Doha nu ngi lay dégg yàlla na yàlla def nu déglu ko te bañ koo dégg fa tabarakallah jàmm si yàlla tamit Cheikh Ahmed Tidiane looy tàggatoo mu mel ne kii nu ngi si yu mujj yi. Mm-hmm. di sant Baye Cheikh ci message bu solo bi mu joxe ak ñaan yi. Mm-hmm. di tàggu tàggu mbokku auditeurs yëpp ak mbokku auditrices yi. Mm-hmm. Eh, di ñaan yàlla dajale waa ñu fekk jotaay. Mm-hmm. lépp ànd ak xéewal ak barke sutura. Mm-hmm. di baalu ñëpp xaq wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa eh, barakatu jërëjëf nu ngi sant yàlla bi mu nu mayee nu mottaleeg alhamdulilahi rabil alamin di wax na message su sëñ Cheikh Ndiaye bi fa tabarakallah eh, ñëpp déglu nañ ko nu ngi ñaan ñëpp jàmm si yàlla sëppe wala xarit wala kum si mën a doon rek kuy def fi sabilillah si mbaaxu yàlla su jokkoo Mara si kàttanu yàlla lépp lu mos a jàmm yàlla dinañ ko teg si loxoom eh, wala mu jokkoo si Ahmed Tidiane Gadiaga si 77 017 41 45 su jokkoo moom fi tabaarakalaa lépp lu mos a bëgg a jàmm yàlla eh, si kàttanu yàlla dina ko motal. di fàttaliwaat ñëpp site bi mooy wadduha point org wala Mara Cissé bu nu ko defee danañ gis site bi lépp bépp information bu leen rëcc wala émission bu leen rëcc bu nu bëgg a dabu. sunu fa demee danañ ko fa fekk di fàttaliwaat ñëpp ne dëkkuwaay bi buntu lycée Seydina Limamou Laye bu Géejawaay si kattanu yàlla buntu lycée bi dend ak tali Pikine bi buntu Gunaas ku fa wàcce rek da nga jàkkaaroog boutique Wadduha ak buntu lycée bi noo def en face noo jàkkaarloo soo fa demee si kattanu yàlla dinañ la woon dëkkuwaay bi lu dul bésu ajjuma di ñaanit képp ku fay ñëw yàlla jiitu la fa. bu fa tabaaraka ba lépp lu la tax a jóg nga fekk fa lu kawe di ñaan it comme nanu aadoo di koy wax rek ku sa fa say mbir lu nekkul eh, gisee ak jotaay ba ñu am suñu diggante ak yow ndax lépp lu nu dàqal lépp lu nu mën a am rek lanu say gënal mooy yaakaar bu tasul yàlla na ko yaakaar bi bañ ci tas yàlla na ko yàlla defal di wax ne yéene beeg itte bi yëpp mooy ñëpp mucc ñëpp yokk yàlla na ko yàlla defal looloo nekkoon seen émission Wadduha di santaat di gërëm bu baax El Hadj Aliou ñoon si technique bi. numéro waddu ha moy 77 617 70 44 77 617 70 44 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم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

wadduha yàlla moo ci giñ yoor yor la léppay leer alaaji mamadou Cissé Mara waa góor